bonjour à tous bon réveil ñu ngi leen di euh, nuyu mba jàmm ngeen fanaane vendredi 30 euh, janvier 2015 ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média tey itam ñu xëyati euh, ni bis bu jot pour yeewu leen matinal bi nga xamee ni yéen lañu ko jagleel ak fu ngeen mën si nekk ñu ngi leen di gërëm xam naa ni fajar geek seddaay bi xëy dina jafe waaye gis nañu ni réew mi ñëpp am jom ndax boo génnee ci biti ku ci ne yaa ngi góorgóorlu ngir dem ci sa bërëbu liggéeyukaay ñun nag ñu leen di gunge bëccëg bu jot tey jii euh, mooy euh, jotaay bi mujj ci semaine bi ci yeewu leen ajuma yi euh, ni ñu koy defee xam ngeen ni bis bu jot ak couleur yeewu leen li ko tax a neex nag mooy dañoo boole ñaar yoo xam ni soxal na ku ne dañuy yeete di yeete maanaam dañuy jëriñ ba noppi di bégale utile ak agréable fii ba ci kanam tey comme 30 janvier la et que weer bi dee na daanaka le premier février ci la ñuy jël bis jagleel ko jigéen ñi nga xam ne ñooy muuru ci émission bi tey dinañ leen ko euh, sargale oustaz Pape Hann mu ngi fii ñu ngi lay nuyu oustaz gërëm la euh, ci euh, teewaay bi ajuma yi moom sa teewaay ci yeewu leen bi macha allah Sénégal yëpp dañu koy rafetlu ba tax rek ñu ngi lay nuyu di la ti jërëjëf alxaj Pape maa ngi nuyu adduna bi yëpp ñaanal leen yal na yàlla may nu xëyum jàmm ci darajay Sidina Mohamed nuyu Adja Mado nuyu Adja Bessel Adja Soxna Fatou Dieng nuyu euh, Alfi waaye nag nuyu borom tagal bu rafet bi borom koppati bi euh, sama xarit sama soppe ki nga bokkal xarit euh, ki ma bokkal xarit alxaj Mamadou Mbaye Garmi sama di sama soppe di sama soppe lool nag maa ngi koy nuyu di ko ziar <laughs> alxaj maa ngi lay nuyu di la ziar a baax ca kanam waxtaan waxtaan wi di nga ko yaatal waaye di nga bëri ci euh, dina dina di nga indi euh, yu bëri yoo xamee nii euh, daf ñuy gindi ndax ñu yokk xam-xam daf ci baax loolee rek tax sànq ma ni sa teewaay ci Yeewu Leen bi àjjuma yi Sénégal yëpp koy rafetlu oustaz Pape Hann bu ca kanamee itam dina am jàkkaarloo boo xamee ni di nga ko def ak sunu gan muy ñi nga xamee nii ñoo jëm rek ci borom cant yi ak sunu ay gan ak wax ëtt bu ñu dugg nag àjjuma bu jot ngeen xam ni oustaz Pape Hann amul fenn sens interdit euh, El Hadj Amadou Mbaye Garmi euh, fàttaliku àjjuma bu jot euh, fii ci réew mi dañu fee bëri ay jàmbaar yoo xamee ni ku ci ne da nga def lu rëy tey nag dinañu àndandoo ak moom ci fàttali comme ni ñu koy defee àjjuma bu jot élage Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi laa fay Baye Cheikh. ak ndokkeel bu baax a baax ñi noo déglu à travers le monde. Mhm. di bëggee nag bu baax sunu jigéen ñi le nga xam ne ñoom itamit bu ñu leen gisee rek euh, sunu ajjuma ji dafay tàmbalee am nu mu def. Mhm. ku mel ni Mado ku mel ne Besel. ku mhm. mel ne Faati. ak nag ki nga xam ne nag moo nekk nag ci waañ yi waaye di bëggee nag bu baax sa kenn ci man. waaw Baye Cheikh borom. borom oo bi daal sama xay <laughs> borom tagal geeg borom oo bi tous les vendredis. waaw waaw devant Pape Cheikh. waaw ak des auditeurs. à <laughs> <laughs> El Hadj Oumar Mbaye Garmi ca kanam euh, tey fàttaliku gi ñu ngi ko jagleel euh, euh, ku ku ñu ràññee woon ci Ndakaaru mm. ràññee woon ko ci penc yëpp mm. waaye ràññee woon ko ci réew mi yëpp di Adja Marème Diop jigéen ji yiw te baax mm-hmm. kooku nag moom meññe grand sëriñ yi ci réew mi mm-hmm. grand sëñ tam sëtu nañu ci moom mhm. kooku tey moom la ñu ni mooy Adja Marème Maxtaar mhm. xam naa ci kanam tuuti danañ leen ko ni insha allahu taala voilà euh, njabootam ko njabootam ñu ngi koy jooy ba tey mhm. euh, nañ ko waxtaanee ak fa mu xam naa tey lébu yi euh, dinañu am lu bëri lu ñu xam ci gëstu googee nga xamee ni def nañu ko ci kilifa googole di Adja Marème Diop Maxtaar Bessél ni àjjuma bu jot moom itam mu ngi fii man dama foogoon ni du ñëw sax tey waaye heureusement ba ñëw na ndax fi mu ñuy yóbbu daf ñuy jàppale ba ñu ñuy yokk itam xam-xam euh, ci euh, yenn ci ay dëkk yoo xam ne ni euh, ñoo ngi fi beseel ñu ngi lay nuyu yow la ndokkeel bu baax. maa ngi lay fay Pape Cheikh di fay tamit ñi ma bokkal plateau bi yëpp ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñuy seetaan comme ni nga ko waxee rek si suñu carnet de voyage tey dañuy dem dëkk bu tudd bakk bakk maanaam bu ñu nee bakk nag mooy bakkeel bakk leen ma. Ah. dañuy dem won leen li nga xamante ne temps wu colon ya moom lañ fa tabaxoon ñu tuddee ko nag pont wu Faidherbe bu lu tax ñu tuddee ko pont bu Faidherbe ak bërëb boobu lan moo taxoon nag. ñu construire ko daal di ko fay teg ba tey mu daal di nekk nag préfecture bu Bakel. ah donc foofu Bakel la tudd. waaw. bàkk la tudd ba tey wala bàkk en fait dañu changé parce que bi tubaab bi ñëwee laaj leen euh, nu mu tudd ñoom amuñu woon tur bi amuñu woon dëkk bi amul woon tur euh, ki nekkoon foofu na mu ne ko mu foog ne tubaab yi ak sabar yi mu woo la mi mu ne leen bàkk leen ma ah. bàkk leen ma fa la tur ba jógee nag ba mu tudd bàkkeel d'accord d'accord waaw mooy bàkk leen ma <laughs> maanaam nañ ko bàkk léegi tubaab yi jël nag foog ne <laughs> loolu mooy dëkk bi <laughs> waaw ñu jël rek daal di koy def bàkkeel jeex na kon carnet de voyage tey Bessel daf ñuy euh, Bakel bu ñu ko bàkkee mu jiin wax ñu lan mooy histoire Bakel euh, dëkk la bu bëri lool histoire xam naa doomi Bakel yi nekk bitim réew pare leen te ubbi seen i nopp euh, ndax Bessél dina leen xamal lu ngeen xamutoon ajjuma euh, bu jot bien-être lay indi ginnaaw bi bis yëpp ci truc yeeg astuce yeeg fun ak fashion Mado ci sañse bu rafet bi tey nga indil ñu bien-être loo ñu digal ñu def ko ndax dafay assurer dafay tax ñu am bien-être comme ni nga ko waxee téléspectateurs yi. Mhm. ak ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi tey nag ci wàllu bien-être nañuy dem mais dañuy dem ci astuce yi nga xamante ne maanaam sunu maam yi moom nañ doon jëfandikoo. Mhm. dinañ waxtaane ay waxu aldanke ay waxu ceeb ak digg ji ah. njëriñ bi nga xamante ne moom lay def ci doomu aadama. dégg lii aldanke. <laughs> Eh, bay loolu fort <laughs> du géer kii loolu ji <laughs> donc ci kanam lay doon bien-être ak Mado dina waxtaanee yu baax yi maam daan jëfandikoo euh, ndeke ba léegi euh, ñu ngi am njëriñ am na yu mu fi indi am na yu muy wane di ngeen ci mën a euh, sukkandiku pour assurer seen bien-être Alfi mu ngi mooñ xaw ma day araw yi nag daf ciy baax àjjuma yi gis ngeen ko noonu nag lekkatam ak dugutam dugubam <laughs> moo ko soq moo ko moo ko wollu ah moo ko sebet Euh, te dëgg dëgg ne nañu dugub ku ko soq wol ko tey ko du la jaaxal waaw <laughs> def tagalam fa yéene ñee fas yéene ñoo toggal laax mais pas n'importe quel laaxu soow waaw pas n'importe quel laaxu soow waaw dafa bëri dafa bëri façon Pape Cheikh xanaa di nuyoo rek Pape Cheikh nuyu ñi ci plateau bi nuyu ñi ñuy seetaan euh, tey comme ni ko annoncé rek defar laax soow pour bën uh-huh. jox nit ñi envie ñu uh-huh. defar ko ci weekend bi uh-huh. xanaa di ci ndokkeel sama yaay rek dinaan ko tey maa arawal sama bopp ko en direct <laughs> parce que naan ko maman ma xool naa loolu nag mu mënoo mooñ waaw souvent c'est très compliqué dafay toog ma toog mu may xool may def mais léegi comme que mokkal na euh, euh, saison yeewu leen <laughs> jigéen boo xam ne dañu ko jëloon pour muy jàngal jigéen ñi euh, naka la ñuy arawee ak mhm. naka la ñuy mooñee parce que dafa bëri façon itam daa am mooñ am araw am araw mhm. tout à fait mhm. <laughs> comme que léegi mokkal naa rek moo tax maa ni sama sumb léeg-léeg Pape Cheikh nga jox ko genn benn kii mu defal la araw yoo xam ne mën na ko tibul <laughs> du tool non bii du dijji du dijji laay nga ni ko cereel ma mu defaral la araw fonde c'est compliqué ah mbaa ay dojj waaw ni ku lay defaral beñe eh, waaw waaw araw araw nag xam nga dafa bari façon dëgg la waaw dafa bari façon parce que tey cere ñetti façon wu cere moo am boo mm. koy mooñ mm. dafa am bu sew a sew comme njóorndi am boo xam ne dafay dijju lool mm. boobu mooy naar yi moom la ñu bëgg moom la ñuy def ay ngumba beneen bi nag mooy cere normal bi ah, jërëjëf docteur <laughs> waaw kon kat loolu day la xam ci cere koo koy desel baas professeur daq <laughs> ne na put wanda ci baat bi nii la xam nga àjjuma moom <laughs> euh, sañse yëpp ay génn lool looloo tax euh, euh, Sénégal neex boo demee ci bërëbu liggéeyukaay yi mbaa nga génn ci mbedd bi da ngay gis lépp lu nekk ci li tubaab tuddee beauté sénégalaise ah mm-hmm. dafa dem ba nekk devoir pour ñëpp àjjuma yi ñëppay def yére olof yi rafet xam naa ni loolee oustaz Pape Anne daf ci gën a kontaan mm-hmm. ba noppi itam premier bi bii di ñëw dimanche ci la ñuy sargal Sénégal euh, voile euh, jigéen ñuy muuru euh, seen bis 1er février ñun nag tey nañ ci indi ay leeral yu bëri ak oustaz Faty Dieng yow ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal. nuyu ñi nga bokkal plateau. bu werte di place <laughs> rek mu ami fëlër. <laughs> lu euh, euh, ko bu ñu demee ba huit heures ci ngay euh, yaatal jotaay bi njëkk lay doon ci ay xibaar ndax xam nga bu ñu xëyee fajar six heures quarante ci lañ leen di won bulletin bu njëkk bi. ba cay topp nag huit heures Fati Dieng ci àndal loo fas yéene yaatal tey. bokk na ca waa parti démocratique sénégalais bi dogg ci seen doxu ñaxtu bi ñu fas yéene amal wala bokk seen euh, dina ñu ko euh, def ne ñu dinañ ci mbedd mi rax ci dolli itam àllarba bu ne dañuy ci wax la leen metti ñu ne euh, préfet jox leen autorisation ak it bañ leen koo jox lu ci mën a am dinañu ko def daan ci dellusiwaat ci kanam ak Mody Gueye ma ñu teewaloon ci seen permanence ba ñu doon amal seen ndaje ak taskatu xibaar yi niñ ko doon waxee démb njiital Fonds monétaire international Christine Lagarde yegg si na euh, fii ci ndakaaru démb nag wax na ci ponk yu bëri soxal wàllu koom fi ci Sénégal leneen lu rédaction bi def gëstu dem xool euh, askan wi ndax xam nañu FMI ak it njëriñam ponk yooyu Pape Cheikh dañ ciy mhm. boole suñu gëstu yi rédaction bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu yaatal ko. Christine Lagarde moomu sax bëri na ci yenn kaay yoo xam ne tey moom la ñu xëyee waaye lu jëm itam euh, ci marche bu PDS bi yenn kaay yu bëri fàtti mhm. moom la ak euh, la nga def ci sa xët bu njëkk ñi nee nañu euh, euh, PDS dina romb limite bi wala mu radicaliser ku ci ne ak noo ko tuddee mais en tout cas daal ñu ngi xaarandi mbir moomulee grand place par exemple ñu ngi gis ci xëtam bu njëkk nataalu ñaari président yi Ablaye wadd ak ki nga xamee ni moo di Macky Sall grand place moom ci xëtam nee na PDS se radicalise loolee la def daal di koy tuddee confrontation ci diggante nguur gi ak parti parti démocratique bu waaw Pape xam nga démb ci ngoon le parti démocratique bu Sénégal. daal di euh, mhm. taxaw. Mhm. def ab euh, ndaje ak taskatu xibaar yi. Mhm. boobu sax timis na ñu yëkkati fay kàddu ndax euh, bu ñu fàttalikoo àllarba bi ñu génn dañu waroon a wàcc mbedd mi préfet gàntul leen lu ni mel ñu génne woon point de presse wax ak taskatu xibaar yi dellusiwaat nañu démb ñoom nee ñu autorisation ñu am ko ak ñu ñàkk ko. manifestation yi ñu waxoon ne dañ koy def ci weer bi daañu ko àllarba bu jot dañuy génn ci mbedd yi lool moo tax nag ñu ne PDS mi ngi radicalisé wu maanaam instant yi daal moom ak nguur gi daa mel ni euh, seqatuñu ab ab taal. moo tax ñu ngi gis sax euh, ci euh, suufu yéenekaay bi ne APR sur le pied de guerre maître Wade ñu ngi koy di tey loolee la yéenekaay bi di grand place xëyee ba ci réew mi moom itam xëyee nag coow loolu ba def ci nataalu président Wade alors réew mi quotidien ne le PDS radicalise daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk li ñu bind ci seeni xët tey waaw ñoo bokk lu ñu bind seen i xët ndax actualité bi démb ci guddi lii la woon seen ndaje mi ak it kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fa bu ñu ko jàngatee réew mi génn ci ak grand place kàddu la yoo xam ne kàddu yu tàng la maanaam ñoom daal dañoo dogg ci li nga xamante ne si moom lañ bëgg def euh, daañu ko def moo xam autorisation moo xam ñu bañ am autorisation ñu ne nag maître Abdoulaye Wade ñu ngi koy xaarandi ni ki tey ndax itam am na ndaje bu ñu fas yéene def fii ak njeexintalu euh, weer bi euh, fële ca place de l'obélisque ak itam àjjuma bi am na loo xam ne prévoir nañu def ko lu ci mën a am euh, nañu xool ba xam fu wànneen di mujjee ki gëtam ñoom ndax dinañu mayu tere boobule euh, déet ab laaj bu samp la ci yéenekaay bii di euh, populaire ci seen xët bu njëkk ñu ngi bind ni le PDS va-t-il braver l'interdit waaw ñu ngi laaj ndax PDS liñ ko tere dina ko def am déet lu su ko waral nag Pape Cheikh ni ko waxee woon sànq rek ci populaire hmm. ne autorisation bu njëkk bi dañ leen koo gàntul ñoom ne ñu par force par la force dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy ci mbedd mi loolu moo tax nag populaire samp ab laaj. Mhm. ndax PDS euh, dina braver interdit ndax dañuy laaj bu fekkee préfet joxu ko euh, autorisation bi ndax dina wàcc ci mbedd mi euh, déet wala waaw. Mhm. wal fajiri moom deful ni populaire populaire xam nga dafa laaj ab dafa samp ab laaj. Mhm. kaddu googee kaddu yooyu na ci yéenekaay bi di populaire moo na ci wal fajiri wal fajiri nag samp ab laaj ndax dafa ne les libéraux von braver l'interdit préfectoral le PDS envers et contre tout. voilà. Walfadjri moom daf ci euh, samput ab laaj ni nga ko wax dafa dëggal ndax démb waa PDS ñoom ñoo yëkkati ay kàddu wax ko daañu wàcc ci mbedd yi loolu moo tax nag mu ne euh, waa Walfadjri dellusiwaat ci itam ak naka nga nga xamante ne si noonu lañ fas yéene taxawee ni bu fekkee ni euh, préfet bu Ndakaaru daf leen a gàntul seen dox ñaxtu yi ñu bëgg a amal. yéen kaay bi di Sud Quotidien moom itam xëyee na ak mbir moom mi nga xamee ni moo nar la lëmbe réew mi tey jëm ci autorisation PDS alors Sud Quotidien def ci xëtam ni le PDS tient à son meeting. waaw PDS euh, Sud Quotidien dellusiwaat na ci meeting moom euh, daf ko tëye ci xolam te it gisut nee noonu lu ko xamante ne si war na koo mën a tere moo xam nguur gi moo xam préfet ñoom nag Pape Cheikh mhm. euh, ci seen wax joojee yëpp dañuy junj moom mooy APR ñoom ñoo nekk ci ginnaaw euh, dogal bi nga xam ne dafa bàyyeekoo ci préfet bu Ndakaaru loolu moo tax ñu takk ne dinañu ko def xam naa ni itam niñ ko waxee tey ci aljuma ji ak ëllëg ci aseet ji moom euh, lépp dina leer voilà ba tey euh, ci euh, yéen a kaay seen i xët euh, témoin xëyee na ak marche boobule dans la rue aujourd'hui le PDS défie l'autorité ba noppi itam ñu defaat leneen loo xamee ni ñoo ngi koy waxtaane di tukki bi nga xamee ni ki jiite FMI di Christine Lagarde amal na ko fii ci Sénégal démb la woon mm-hmm. waxtaan wa nag ma nga amee woon ca salon d'honneur bu aéroport Léopold Senghor alors yéen a kaay bii di le témoin bind itam ba tey ci xëtam ni Christine Lagarde moom nee na le FMI soutient Euh, le PSE. waaw njiital euh, Fonds monétaire international Christine Lagarde démb bi mu yegsee ci Ndakaaru dem na ci salon d'honneur bu aéroport def fa ab euh, daje ak taskatu xibaar yi xam nañu itam li ko yëkkati waaye leneen lu ñu gis Pape Cheikh moom mooy FMI moom dafa nekk di jàppale li nga xam ne moom mooy plan Sénégal émergent. voilà euh, ba tey rek loolee la yéenekaay bi di la soleil soleil xëyee tey euh, ñu ngi def euh, nataalu président de la république ak ki nga xam ne ni moo jiite FMI di Christine Lagarde ci seen waxtaan ni ki démb alors FMI va soutenir le PSE li témoin wax rek le soleil wax waaye daf cee toftal ni Macky Sall moom président wax na ni ñu ngi ci yoon bu baax maanaam nu sommes sur la bonne voie loolee le soleil xëyee tey. waaw le soleil xëyee ci Christine Lagarde ak njiitu réew a Sénégal émergent ak itam kàddu njiitu réew bu Sénégal wax nga ko euh, moom président Sall nee na ña ngi ca yoonu baax na te amaana bu ñu ko wàccul mën naa am ñu egg fa nu jëm. yéen bàyyi yéen kaay bii di Sud Quotidien <laughs> euh, le quotidien plutôt moom sax euh, turu euh, ki jiite FMI sax la dëpp ba am ci ab xët bind Christine monte la garde. waaw Christine yegsi na wax ci Fonds monétaire international le quotidien dellu si waat càkk na mun na a taxawalee jàppale ni li nga xamante ne si moom mooy Sénégal jëm ci wàllu koom rawatina ni ñu ko waxee plan Sénégal émergent moo tax ñu def seen ay fem génne titraay bu rafet. Mhm. Christine monte la garde. Lagarde bi ñu def ko en rouge ak montre. voilà Christine Lagarde nag ci pàttali xam naa di ko gis bu ca kanamee euh, ci journalu euh, Fatou Dieng bi moom nag euh, moo jiite FMI ñoom nag dañuy saytu lépp lu jëm ci wàllu koom koppar ak yooyu xeet jëm ci àddina nekkoon kilifa ca France mu ngoog mu ngi Sénégal fi mu toll tembe wi si nag defe naa ñetti fan la defe naa. waaw ñetti fan rek lay doon lay toog fii ci Sénégal ay waxtaan yoo xamee ni seq na ko ak ñi jiite réew mi démb la woon info xëyee na tey ak président de la république ne mu ngi waajal euh, campagne pour 2017 nataal bi sax ñu ngi wone euh, président Macky Sall euh, ay nit yu bëri nekk ca ginnaawam comme ni ñuy defee meeting un peu comme ça. Mm-hmm. Hmm? direct voilà. info waaw. ah direct info mu ñëw ci euh, Macky Sall ak it moom li ñu gis daal moom mooy doxalinu njiitu réew mi dañoo gis ne euh, dafa nekk di def campagne silencieuse maanaam euh, day wane loo xamante ne si moom mu ngi def nànk-nànk loo xam ne amaana bu ko yóbboo ci 2017 mën na fa am dara. voilà am na sax ñu ne dafa def comme mu defoon laataa moo nekk président. parce que mm. amoon na jot di dugg ci àll bi. loolee la commencé waat di ko def ci suuf en tout cas lu ngeen ci bëgg a xam mun ngeen yër yéenekaay bi di direct info stade moom xëyee na ak Alain Giresse comme moom euh, tàggat yaram rek ko intéressé alors euh, deal avec la fédération euh, sénégalaise de foot ab laaj bu samp la est-ce que deal la ci diggante Giresse ak fédération nee nañu Giresse amatul woon contrat. Mm, waaw nee nañu amatul woon contrat contrat am sax dañu ne dafa expiré laata kaan bi di door. ah bon itam waaw loolu la yéenekaay bi wax. Mhm. leneen lu ñu ci yokk moom mooy fédération sénégalaise bu football tase na woon ak moom. Mhm. ngir waxtaan ci lu ni mel lu ci mën a am daal samp nañ ab laaj. Mhm. ndax ndax euh, li am diggante GIRAS ak mhm. fédération sénégalaise bu football. Mhm. di la wala déet euh, xam naa ko bëgg am tontu li boo jëndee yéen kaay bi di nga ko am. voilà yéen kaay bi di euh, l'observateur moom nag tey dafa xëyëb gëstu boo xamee ni mu ngi ko jagleel takk der yi nga xamee ni yóbbu nañ leen mission ci dëkk yi nga xamee ni dafa am guerre ñaare Nations Unies lañuy ñuy àndal yi nag ñooy alkaati yi nekk ci dëkk bu ñu naan kii daal coono ga ñu nekkee ak jafe-jafe ya ñuy am dégg naa sax bu ñu waree lekk sombi la ñuy lekk ba noppi itam seen ay euh, ration euh, dafay euh, yàgg wala ñu koy indi fu sori duñ ci teel a jot ak yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni ñoo ngi koy dund loole la gis ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur duñ ci sori dañuy dem directement ca rédaction centrale bu l'observateur pour menu l'observateur de ce vendredi 30 janvier 2015 c'est parti Bonjour Pierre, bonjour à toute l'équipe de Yeoulen. Ravi de vous euh, de l'Observateur qui s'est attardé de séjour des forces sénégalaises de la MINUSMA. Et c'est pour relever la grande galère des policiers sénégalais à Kidal. Les policiers sénégalais de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali bourrois du Noir. Leurs conditions de vie et de séjour se sont dégradées de façon brusque, prenant au dépourvu la délégation des policiers sénégalais présents à Kidal pour le compte de la force onusienne. Dans le silence de leur garnison, des policiers ont, sous le couvert de l'anonymat, dénoncé l'absence de ratio alimentaire, leur logement de fortune, fête de tente qui s'étiole au gré des tempêtes de sable qui sévissent à Kidal où le thermomètre affiche 7 degrés. Également la une de l'Observateur Papier, Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan, le Sénégal n'a pas reçu un, un directeur du FMI depuis 15 ans. Et c'est pour relever que la directrice générale du Fonds monétaire international est arrivée hier après-midi à Dakar pour une visite de trois jours en provenance de Kigali au Rwanda. général du Fonds monétaire international. Christine Lagarde sera reçue par le chef de l'État et rencontrera des chefs d'entreprise, des femmes leaders leaders, ainsi que des représentants de la société civile. Une allocution est également prévue devant l'Assemblée nationale. Madame Lagarde devra ainsi s'entretenir avec de hauts responsables de la BCAO. Enfin, Pape Cheikh, une affaire de mœurs à la une de l'Observateur. Il s'agit d'une affaire d'adultère qui s'est déroulée à Kermassar. Et notons que les pandores de la brigade de gendarmerie de Kermassar ont examiné dernièrement une drôle affaire de coups et blessures volontaires. L'enquête approfondie par les enquêteurs a révélé qu'en lieu et place de coups et blessures volontaires, il était plutôt question d'une biscornue affaire d'adultère qui a mal Pour en attester, le mis en cause a révélé au Pandore, au que leur différend est lié à des faits de mœurs, que FC, qui est une dame mariée et sa copine, qu'ils ont entretenu plusieurs rapports sexuels, et qu'elle porte une imposante cicatrice sur la fesse gauche. Voilà, Pierre, c'était tout pour la une de l'Observateur du jour. À vous, aux téléspectateurs, aux bonne lecture. merci Abdoulaye bonne journée a toi merci pour ces infos euh, jëm ci yéenekaay bi di l'Observateur c'était le menu euh, de ce vendredi 30 euh, janvier 2015 weer bi dee na bis yaa ngi bëgg a jeex waaye teewul yéen a ngi àndandoo ak ñun ba tey li ñuy def rek léegi mooy dem jox leen xibaaru jaww ji jant bi jógagul mu ngi war a ñëw file ak ñaar ñet ba ñeenti minutes Fati Dieng tey itam yeewu nañu ak lu tollu ci 18 degré ci wàllu température waaye ci suba gi ñu ngi koy am ci Ndakaaru mais Pape Cheikh bu ñu xoolee euh, température yi mi ngi dox mi ngi dooree 17 degré ba 37 degré donc mu mel ni euh, seddaay bi mu ngi dem ndànk-ndànk en tout cas euh, ci yenn gox yi ci Ndakaaru parce que bu weesoo Dakar bi am 18 degré ak Saint-Louis ak Podor bi am 17 degré bu ñu demee par exemple ci Tambacounda ak Kaolack moom ñu ngi ci 22 degré Bawal ñu ngi yeewoo ak 21 degré. Matam Linguère 19 plutôt Matam 18 degré moom ak Dakar ñoo bokk température 18 degré également ci Ziguinchor Kolda 20 degré Kédougou 21 degré ngoon gi itam euh, Dakar dinañ fi nemmeeku aspeex su su nooy ndax 24 degré lay am euh, ba fi di Saint-Louis moom mi ngi ciy 28 degré donc 33 degré ca Podor Matam Euh, euh, cinq 35 34 Linguère 35 également euh, ca Diourbel ak ca Kaolack 36 degré Tambacounda 34 Ziguinchor Kolda ak Kédougou ñoom ñooy gën a tàng ci ngoon gi ak 37 degré lu jëm ci wàllu marée yi pleine mer bi moom ñu ngi ko am bi jotee ba ca topp ngoon lay doon 18 h quinze minutes tey nag benn marée basse la ñu am mi ngi am bu 11 h jotee. waaye lu jëm ci wàllu napp gi sunu mbokku nappkat yi bu leen fàtte seen kaaraange seen gilet de sauvetage waaye waxtu ya gën a baax ngir nappi mi ngi euh, ci diggante 3h53 ba 4h53 ak 22h11 minutes ba 0h11 minutes lu jëm ci euh, jant bi moom ni ko Pape Cheikh waxee jugagul mais nag xam naa ni instant yi mi ngi fudd yàggatul 7h38 lay doon euh, waaw dans une minute kon moom mi ngoog mi ngi fudd nànk-nànk euh, mi ngi so bu 19 heures 8 jotee xam naa waxtu wi nga xamante ne si moom mooy waxtu julli timis lay doon daa ni Pape Cheikh waa kay defe naa waxtu boobu la parce que ñu ngi bëgg euh, wane euh, waxtu julli yi jërëjëf maam faati loole ay xët la joxe ba noppi won ñu lan la yéene kaay yeewoo tey ci ajuma bi ak météo bi dañu lay bàyyi nga dem ko defee ca kanam bu 8 jotee nga si yaatal xibaaru suba gi ci télévision Futur Média 7h37 Euh, mbokk yi ba léegi rek ngeen di yeew ndànk di àndandoo ak ñun ndànk ñu leen di gunge ndànk ci bis bi euh, di leen ñaanal weekend bu neex euh, li ñuy def rek mooy jox leen waxtu julli ak heure messe yi pour suñu mbokk chrétien yi xam nga oustaz Pape Anne fan yi la rek mu ngi ñu koy expliquer ni jaww ji moom mu ngook ndax bis bu jot daanaka ay coppite yu ndaw dañu koy gis ci heure julli bu dee tey vendredi 30 janvier comme ni ñu leen koy bëgg a wane nii suba teel julli bi mu ngi toll ci 6 h Euh, Tisbar mu ngi toll ci 13h21 Takusaan mu ngi toll ci 16h37 euh, Timis mu ngi toll ci 19h03 mu ngi toll ci 20h04 euh, Julli Fajar mu ngi toll ci 6h37 Tisbar ñu ngi koy julli 1h21 Takusaan ñu ngi koy julli 4h37 Timis ñu ngi koy julli 7h03 Gee nag ñu ngi koy julli 8h04 pour suñu mbokku chrétiens yi comme Sénégal moo ni mel dañ leen di won waxtu mees yi ci jàngu yi ngeen mën cee bàyyi xel xam nga ñaan moom euh, euh, fu ne la mën a jógee alors euh, bu ngeen demee nag ci jàngu yooyu bu ci mel nii bu cathédrale bis bu jot ñu woon leen ay heure meesam Saint-Joseph ak martyr de l'Ouganda bu jàppandee ñu jàll ci bu ko defee ngeen mën koo gis ci tele bi mën a xam yan heure ngeen di am ay mees ci seen ay jàngu ndax Ndakaaru wala Sénégal sax rek laay wax gis ngeen li tubaab tuddee dialogue ak islam moo chrétien oustaz Pape Hann mhm. jullit ak catholique mhm. ànd euh, dañuy ànd ndax alxalqu kulluhum ayaalullahi la si la si dina Muhammad mooy mindi fépp njabootu yàlla lañu mhm. sallallahu alayhi wa sallam ah, te ki ci yàlla gën a bëgg <laughs> ki ci yàlla gën a bëgg yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ te doomu aadama dafa foor rasul ma mës a toog saxaaba yi ñu romb ko benn néew yonent yàlla Muhammad daal di jóg taxaw daal di toogaat ñu ni ko monte kee ngay jugal di taxawal yéexut la de mu ni ndax du nit ndax amul bakkan moom la la mu màggal moom moom yonent bi alayhi salaam mooy bàkkan nga te nit bakkan la màggal ma bakkan la màggal kon nag nit dafa foor nit dafa foor fa yàlla fa yàlla ak fa sa xarit ba fa ah, ah. moo tax euh, yàlla ki mu gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ ak ki fonk doomu aadama alaj pam hmm. wallaahi waaw moom la yàlla gën a bëgg ah. te it nag ñun ñun xeetu Seydina Muhammad yàllaa ñu wax ni nañu gëm Aïssa nañu gëm Moussa nañu gëm ñëpp mm-hmm. mboolem ku yàlla yónni rek ah. nañu la gëm kon seeni njaboot dañ leen di jàpp kon nañu sant yàlla ndax li ñu am Sénégal nag euh, bëriwul ci ay réew euh, ñëpp àndandoo moo tax euh, bu weesoo waxtu julli ak jullit yi ñu dem ci sunu xarit yi chrétiens yeeg seeni waxtu messe ci jàngu yi cathédrale ci biir semaine

messe 6h30 18h30 dimanche ak jour férié am na messe 7h 9h30 11h ak 18h30 mu ngoog euh, bu dee euh, yeneen euh, jàngu yi la xam naa dinañu wut seeni waxtu mees comme ça ñu jox leen ko ndax wóor nañu ni Sénégal yéen ñëpp ay àndandoo di xëy ak ñun ci télévision Futur Média ñu leen di gunge ci seen i bis di leen fàttali ne wax nañu ko sànq ne ñu ngi waajal bis bi nga xamee ni muuru la ñu ko jagleel le premier février bu soobee yàlla ca kanam dañu recevoir ay jigéen yoo xamee ni dañuy muuru Euh, oustaz euh, suñu jigéen ñi dañuy fàtte ni euh, muur moom ci jigéen dafa obligatoire. maanaam bari na jigéen ñoo xam ne seen bopp a ngi metti. xam nga lu koy metti mhm. mooy nga dugg ci jàkka. Mhm. te sa karaw génn. Mhm. wala nga dugg ci jumaa mbaa nga toog jotaay bu ñuy bàkkee yàlla di fa tagg si gina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi dañuy ñëw ñëw googu malaaka yi ñëw te du gis bopp jigéen bu nee tëll xool gi mu lay xool wàññeeku gi muy waññeeku loolu moo lay indil feebar ah. gisoo mboq uh-huh. mbokk bala nga ko lakk noo koy def. da koy xolli ba noppi. yàlla nekk nee na. Uh-huh. bëgguma leen a lakk bu leen xollee ko waay. loolu rëy na de. waaye Pape yow ndax liy jàmm la. <laughs> yàlla nee na. après léegi man xam naa di nga gën a yaatal ci muuru. Uh, man nag bi ma ci gën a jaaxal mooy bii ñu wane ci écran bi bii nga xam ne dangay gis ñuy muur yëpp. Mm-hmm. waa bii moom li ma jàng ci lislaam yàlla waxunu lii yàlla waxul bii ah waaw jigéen ah bii foor na de waaw bii foor na hmm. waaye ba am na ñu koy def ah. al ixtilaafu ulama rahmatul wuute borom xam-xam yi la waaw nit bëgg naa sangewu hmm. waaye nag ñàkk laa xàmmee hmm. jigéen lii kanamam gi kanamam gi mën naa feeñ d'accord du xawra bu bu ñu war a nëbb sa loxo mën naa feeñ du lu ñu war a nëbbu mm-hmm. sa xar kanam nii mën naa feeñ du lu ñu war a nëbbu mm-hmm. waaye leneen lu ci lu nekkul ci yow war nañu ko nëbb war nañ ko nëbb waaye waaye bii nag ñun ñu nekk ci ngir Malick mm-hmm. euh, imam Malick waxuñu lii parce que ñun ñun Sénégal peut-être amuñu problème bu bëri euh, ci wàllu jigéen ñi muuru waaye xam nga julliti ñu ngi fu ne ci dëkk yu mel ni Amérique. moo tax yu mel ni France dañu fay faral di am ay jafe-jafe ndax muuru gi ñuy muuru ñiy gën a sonn nag mooy ñi nga xam ne ñoo muuru xeetu muuru bii. xeetu muuru bi man la laajte naa euh, la la ko waral lu bari ci ñoom ñi nga xam ne ñu ngi koy def wala ñi borom yi xam-xam seen i di ko def. waaw la la taxoon ñu koy def mooy jigéen ñi nga xam ne seen taar dafa jéggi dayoo. macha allah su muuroo muuraay ba yokkam bu yokk taar bu la rombee nga xool ko xool googu ñoom loolu lañ ci doon bañ ñu ni xam nga lu xewa xool gi ñuy xool ñoom góor ñi seen xel dañu nekk ñun bu ñu kenn xàmmee te kat nag oustaz defe naa taaru jigéen moom borom kër rek ko rek ci mën a waaw taaru jigéen borom kër rek moo ci mën a barkeelu l'islam sax la ma la wax mooy premier xool bi yàlla mën a la ko jéggal mais nga xool xoolaat nga bàkkaar waaw xool xoolaat baaxul nag xool xoolaat nag defe naa mën a xool xewul kaver de déedéet loolu moom wax dëgg yàlla xaw fu mu xew waaye kaver moom xew te boo ko boo ko gëstoo itam euh, ci histoire Sénégal mm. réew mi mag ñi dañoo yàgg muuru waaw ñooñu dañ daan solo solo yu jot. yu jekk mm-hmm. yoo xam ne yilee Euh, dañ dañ daan soo sax camisole ci biir. Hmm. jël grand boobu doo ko indi. waaw waaw. camisole bi la ñuy dugal ci biir jël. grand boobu yiw dafa baax yiw dafa baax yiw dafa baax. moom daal te lislaam nag ci fulla la mësi dox. Hmm. waaw lislaam ci fulla la mësi dox. te yàlla ni si Sayyidina Muhammad. waxal gaañ ni ak lu nu mën a def. fu ñu mën a hmm. jaar. nañu nekk julit ba la ñoo dee. wala tamutunna illa wa antum muslimuna. waaye muuraay bii kii muur kanamam gépp. dëgg la bii bii yiw na de. waaye bi nga génne sa kanam boobu yiw na de mooy jigéen daal uh-huh. mook mboq yam mais mais nag mais nag xam nga bee itam jëye mën na ci am papa waaw mën nga fa xasal waaw mën nga def soo ne soo solo ci biir kenn xamul lan nga yor ah. boo nekkee ci yenn réew yi hmm. waruñu duñu mën a nangu loolu voilà am na ci réew am na ci réew yu bëri jigéen ñi muuru dañ leen di toroxal ah, mën nañu leen laaj d'identité waaw ñu joxe identité ba noppi des ak seen muuraay comme àdduna dafa bëri saay-saay mm-hmm. yenn saay sax ñu am ñu ci toroxal futti leen ngir xool seen euh, seen euh, seen identité ay jafe-jafe yo yu dund euh, li ko gën a yokk nag la xewoon am États-Unis 11 septembre boobu loolu sax moo tax benn américaine mm-hmm. bu tuub nekk jullit mm-hmm. moom mu initié bis bii tey ñu tuddee ko hijab day nga xam ne àddina foo dem dañuy célébrer bis bi ñu jagleel jigéen ñi muuru waaye defe naa tamit boo nekkee ci réew wala nga xool na réew may doxee waaye tamit war nga xool li suñu borom santaane nga def ko li tubaab tuddee dans les règles de l'art bañ a def lu ëpp it ndax boo defee lu ëpp mën nga choqué mën nga choqué xalaat mhm. bu fekkee bii réew ma da koo bañ muur mu génn say kanam muur ko mu tiital leen waaw defal li la yàlla sant suñu borom may na la nga nga wane sa kanam tuuti nga wane sa nga sa kanam nga sa kanam d'accord loolu yiw na uh-huh. rafet na uh-huh. waaye itam jekk na uh-huh. euh, may digal góor ñi rek ñuy xool benn xool sëgg d'accord hmm. di bañ a gestu bañ a xool xoolaat. bañ bañ a xool xoolaat. Ah, sinon loo ci am xool xoolaat bi. Bakkaar la kon tonton Mag. Hmm. Yao Gervais. kon Dame doon nañu. Euh, jo Dassin. Mm. non man benn xool rek laay xool xijaab xam nga ñoom ñi gën ñu dina ci ñëw <laughs> ndax xam naa damay bàyyi ñu wax ko sax ndax bu samedi bi la ñuy def le 31 premier bu la bu le 31 bi incha allah man mi maa koy waxtaan ci Mermoz macha allah euh, woo ci mboolem jigéen ñi nga xam ni muuru wuñu sax bëgg a muuru uh-huh. bu ñu ñëwee daañu xam lan mooy lislaam nag incha allah yooyu defe naa am na solo mm-hmm. euh, te euh, Oustaz El Hadj Mbaye Gar mi wax nga ko léegi Sénégal moom yàgg nañu ak muuraay ah, suñu teg kol ca kaw euh, kol moom dafay fekk baax moom dafay fekk baax xam nga kol sutura la léeg-léeg sax ñuy wax la baat boo xam ne bile nga bëgg suturaal sa bopp daal di daal di xaw a nga war caaree wala dara. mais kool gi rek moom nga koy sàngi. wallaay man nga dañoo yàgg ci sutura de. wallaay wallaay wallaay waaw waaw nañu bàyyi nañu bi daal. wallaay bi daal wóorul. wallaay li sa kanam mën nga ko xool. waaw wax na ko. Uh-huh. su sunu islam bu log bu mag bi de. waaye gars yi dañuy gestu nag. ba jëlee ca tortu ko li mais mais mais mais hélas gerte bi fooguloo ni soxna yi ñoo ko indi ñoom ñooy ñoom ñooy bët kat bët la. waaw sol façon. sol eh, nit moom nit rekk la oustaz. xam nga xam nga yonent bi alayhi salaam dafa wax ni. dañuy fitna mi ngi nelaw. Ah. al fitnatu naimun. Ah. Mm. fitna mi ngi nelaw. Ah. waaye yàlla rëbb na. ki nga xam ne mi ngi yee fitna am na jigéen ñoom saa ñu xëyee taxaw ci seen seetu mm. layu leen yitteel dëgg mooy bëgg fitnaal góor ñi kon am na yenn xeetu uh, col ko mm. yoo xamee ni jigéen ñaa ngi koy sol ñaa ngi koy sol xeetu yee fitna la xeetu yee fitna la waaw te suñu borom lu mu wax nag ci kuy yee fitna kooku yàlla rëbb na ko ah kon. <laughs> laanatullahi man ay xasaha. ah yàlla ah, yàlla rëbb na leen de. <laughs> yàlla rëbb na ko yee fitna. rëbb na leen de. yàlla rëbb na ko yee fitna. waaw xam nga laaj pap sol loo xam ni say ween a ngi ci biti. wallaay ay décolleté. sol loo xam ni mi ngi mi ngi ni ñàpp ci sa ci sa yaram bi. Oh, waaw ba pare nga ne yow jullit nga doomu jóg romb kook waa mbedd mi bokk ak ay nit oto dugg kook sa biir bureau ba ngay liggéey ah yaa nga yee na de waaw mais papa accolade bi ci réew mi nag wallaay accolade nga xam ne accolade bi eh, accolade bu bari boobu eh, loolu alaaj dafa araam ah ci jigéen Allah araam na góor di accolade jigéen araam na sax góor di nuyu jigéen boo koy accolade. xaram kon ay accolade bàjjo waaw kay léegi bàyyil accolade. xam nga man ma nga fa ba tey. wallaahi jógu fa alxuraan soppikuwul ba tey. wallaahi kat yàlla wax na ba noppi te la mu waxoon soppikoo ba noppi. wallaahi alxuraan yàlla wax na ko ba noppi. te ba mu ko wàccee léegi am na junni at ak lu topp. ba tey changé wul. léegi nag bari na ci ñoo xam ne dañu changé alxuraan ji. waaw pour bëgg lu woyefal l'islam waaye l'islam nag ci fula la ma si dox. kon boo seetloo lu lu ñu bëgg a yàqal fa yàlla toppandoo gu mitti la. toppandoo gu mm. mm. ba pare topp mm. suñu bakkan. Ah. xam nga bakkan dafa mel ni ki xale. Mm-hmm. xale boo ko feralee rek mu fer mais xale bu am ñetti at feraloo ko. boo jëmee boutique ba day topp sa ginnaaw di laaj ween. mooy nafsu ah, nafsu. fa yëg-yëg yi bàyyi ko. masdarul ihsaasat ay alxisi yi waaye ñun nag alaaj Pape dañoo topp suñu bakkan. waaw yàlla santoon lépp ba léegi may wax ak yow defuñu ci dara oustaz loolu bokkul ci doye ji ndax yéen borom xam-xam yi toog ngeen ci télé yi wax mhm. toog ci rajo yi wax waaye teewul sama classe ki ku ci génn léegi accolade ñàkk xam sa bopp la ñàkk xamit li la fi indi waaye ñàkk xamit li la yàlla defal ñàkk xam sa bopp ñàkk xam li la fi indi waaye itam ñàkk xam li la yàlla defal est-ce que finalement gëm nañu yàlla kon ñun euh, dañu ko dañu dañu dañu dañ kumpa ci moom rek oh. am ñu ko gëm nag waaye am na ñoo xam dañu dañ bis billaahi yàlla bu wane woon boppam ne chaque dimanche ngeen ma fekk fii bu ñuy génn di ko dinga sénégalais la yàlla bindee noonu. dëgg la hmm. ah, sénégalais moom ngay bàkk yàlla léegi mu jooyu léegi léegi wëlbati ko def yàlla lu ko métti. Hmm. kon oustaz kon gëmul yàlla. kon oustaz kon oustaz jaamu yàlla jullit dëgg du julli dong. déedéet jaamu yàlla du jul premier mooy xol. Ah. xol yàlla ne fii ci man de yi ah. alal du fi jariñ Mm-hmm. doom du fi jariñ fii ci man de xol bu laab rek moo fi jariñ loolu mën nga yow ma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man atallahi bi xalbin salim waaw ndax ku iñaan di julli di julli waxtu yëpp dina am dina am dara fa yàlla munul am dara fi yàlla kon lu mu julli yàlla da koy takk sa delloo ko ko nga iñaan soxoree nit di yàq doomu aadama mm. am na ñoo xam ne da yëguñu yëgu dara xewul dara xewul yaa ngi naan mi ngi may yàq mi ngi may def fekk dara xewul waaye yow nga yittil sa bopp defaroo sa xol sa xol muuru ñuul mënoo mm. bëgg nit ko avancé mënoo bëgg nit ku yàlla teral mënoo bëgg nit nit ki nga xam ne ay dañ koo sopp boo booy demee fu ñu koy waxee lu baax sa ay nit sopp ko di nga fexe ba ñooña nga wax ca kooku lu bon nga fexe loo gàkk gàkkale deram nga yëg nga yàq yëg yàlla dañ na ci yow yàlla bana la nga yëg yàlla dañ na ci yow nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow parce que da bon sa xol dafa muuru te xol bu muuru nag munoo ne allahu ak yi ba yàlla déglu la ah. yàlla du la déglu nit dafay laabal xolam defar xolam yéen a ñëpp mbaax. waaw kon ndekete ndekete base bi mooy xol bu laab. mooy xol bu baax premier xol bu baax laaj euh, mooy xol bu baax ndax hmm. euh, dañuy euh, kam kamali revali allahma sana bari shakli maanaam xol li ko ëmb ala ci fotora bànniya leer la goo xam ne bi xale juddoo mooy xale soxorul wallaay mhm. waaye soxor gi nekk sa xol ba sa xol muuru nag yaa koy màggaale yaa koy ah. lijjanti sa bopp masha allah parce que wax yu bon yaak jëf yu bon ya mënu def wax ci lu baax mooy dem ba sa xol day muuru boo waxee yàlla mu du moyu la léegi ci diggante kay wax ak ko xolam euh, ko xolam bon mbaa mu ñuul euh, dañuy faral di wax ñun buñ dee jël exemple euh, diw a ngi wax ci diw yow ci diw mi ñuy wax bul wax dara ndax mu ngi lay wàññil sa bàkkaar loolu dëgg la. waaw di nga romb ëllëg nit yow man xiyam mu am jalu bàkkaar. Ah. jalu bàkkaar nga romb kee mu am jalu yiw. ki am jalu bàkkaar di ñee ki am jalu yiw ay waay kii ñee naa ko ki am jalu yiw nga rombaat ko mu am jalu bàkkaar ah. ñu ni waaw pourquoi lii mu soppiku nii ñu ni ko mm-hmm. parce que àqu nit parce que ku amee bàkkaar ah. tey su ma la amee su ma la su ma su amee amalee ak rombanteek yow ma war laa fay aw ma lu ma la fayee dañuy jël samay bàkkaar jox la ah. léegi nag montagne yiw yooyu day mujj soppaliku montagne bàkkaar lay waral loolu mooy man kat pap an alaaj pap Cheikh Diallo bi ma wax ci yow mbon dañuy jël sama say bàkkaar jox ma jël samay yiw jox la kon daal euh, Pape man jàngat naa ci dara. waaw remboursement bi. kon nit ñi nañ ci bàyyi xel. ah xeetu bor la waaw xeetu bor la boo xam ne da ngay remboursé yi. Ah. kon daal gars yi dañu bàyyi xel ci remboursement. <laughs> su cee remboursement wóor tamit ku ñu yàlla royaloo nag. macha allah macha allah sallallahu alayhi wa sallam ku sakkan kii te kat li ci neex mooy oustaz euh, saa yoo indi indee euh, téere. nga indi euh, diine El Hadj Man Garmi dina wax loo xam ne dafay méngoo ak li suñu borom santaane euh, euh, muy lu lu bokk ci démb lu bokk ci réew mi lu bokk ci suñu ay jikko ndeke daal jikko ju rafet yàgg na itam Sénégal jikko ju rafet yàgg na fi te démb la woon waaye itam te ngor la woon mu nekk deret am na loo xam ne mënuñu def na ñoo ne mënuñu wax ci nit lu bon mukk parce dañu gëm seen bopp mhm. karaasu ban bay gar mi nit boo gëmee sa bopp doo doo wax ci nit lu bon mukk nit boo gëmee sa bopp ci mbaax ngay dox ci mbaax ngay ne waaye ku la gis fonk la ku la gis respecté la xoolal yonent bi si naa lu ne boo ne ko jàkk da tiit wallaahi ndax dafa tëy mooy dignité ga personnalité ga waaye boo jaxasoog moom rek bëgg ko ndax mbaax ga man raahu badihatan habahu waaye woo man xaalatahu maarifatan ma te xeexam jeexagul ba tey mm. déedéet sa waa ji boo njaay rek bu ñu bindee livre ba dañ koo tekki ci ay langue yu bëri yu bëri ni njàngay kaas sax waaye biig dama ànd ak Tayib Socé ca la mu wax mm-hmm. am na ñu ko xamul woon mm-hmm. ba yéene kaay ba génne ñu def ko ci ay làkk yu bëri xam nañ ko xam nañ ko ci lii dëgg ne waa kuy kooku dem vérifier ju ko te maa ngi lay wax ni <laughs> di xeex Charlie waaye dëkk Charlie may na euh, Charlie ko vérifié ba sax da ko wax le malheur des uns xaw ma fait le bonheur des autres yenn saa yi ngay xeex mbir ndekk sax suñu borom da koo def rek ci misaal ndax njëriñ la am ñu ma bëgg a dimbali ngir ngir lislaam tey ku bon mën naa defal yaayam lu baax yàlla kontaan ci moom yàlla waaw kii nu may def ba mu bëgg sama waaj xaaral ma indi dara gaaw ah. nga indi dara kooku daal di xool ni waaw kii mooy kan ah. kii la prophète ah. vérifié prophète rek ah kii nag jaar ah, naa bëgg. mooy mooy li wolof di faral di wax naan kuy euh, yenn saa yàlla buy defar day mel ni lu yàq day mel balaa nga balaa nga làkk yéen ko tekki rek balaa ngaa ñëw balaa ngaa ñëw da ngay dog rus dëgg la waaw balaa ngaa ñëw da ngay da nga koy dog faram fàcc ko ba pare boo ko boolee rek mbay mu doon mu jox la garaamol <laughs> bi kenn du moom kenn du moom kenn du sa voilà 7 heures 55 ñu ngi euh, jéggalu xam naa tey du ngeen am euh, li ñu jagleel yaram bu yëngu ah suñu fitness yi duñ ko am waaye rek xanaa fàttali leen ne ci kanam euh, Mado dinañu indil euh, bien-être bien-être bi nag euh, dina indi yi ñu daan jëfandikoo Bessél itam dinañu yóbbu dëkk bu ñu naan Bakel dinañu fàttaliku itam ki nga xamee ni moo di Adja Marème Diop Makhtar Alfi itam tey daf ñuy toggal laaxu soow oustaz Pape An cay waxtaan ak jàkkaarloo dinañu bégal ba nu bég ni ñu koy defee àjjuma bu jot ba noppi itam ca kanam dinañ def tout ba ibbi téléphone bi bu ko defee ñu mën a waxtaan ak yéen ci ñu jeexal ko léegi itam ñu jeexal li nga xam ne ni euh, mooy seeni week-end de rêve am ngeen ba tey ci midi euh, pour mën a inscrire mën a dem foofee ñu tuddee Frabissima Palm Beach alors ku ci profité wul di nga ko rëccu te bëgguñu kenn rëccu ko donc yooyu yëpp yéen lañu ko euh, jagleel 7h56 alors on dirait qu'elle vient d'arriver notre coach je pensais qu'elle n'allait pas être là pour li nga xam ne ni moo di fitness comme fajar bu jot ni mu koy defee ndax sport dafa am solo boo xëyee daf ciy baax itam nga yëngal yaram tàngal na nekk euh, en pleine forme alors euh, ñu ngi ànd ak euh, Post One ci kanam dinañ leen wax njëriñam ànd itam ak You Speaker ci kanam itam ñu wax leen njëriñam yooyu yëpp nag yéen rek lañu ko jagleel fii ba 10 heures ci télévision Futur Média Fama bu fekkee pare nga ñëw nga ñëw rapidement ñu dem ci fitness bi joxe exercice yi en 4 minutes puisque 7h56 mooy jot journal bi c'est dans 4 minutes nañ ci àndandoo ak ki nga xam ne ni moo di Fatidien sinon

aji nañ fi dalal soxna soo xamante ni euh, moom euh, xam-xamam màcc na ci lépp lu jëm ci wàllu euh, voile muuru dina am ay technique yu mu joxe ci tele bi ba noppi ci télévision yi itam gis nañu ni ñi ciy génn ñu ngi muuru ñun oustaz ay ibaadu lañ leen tuddee est-ce que yoon la ñu tuddee leen ibaadu xaw xaw a def lu tubaab tuddee xaw ma stigmatiser lu tudd que ku muuru rek xam nga ñun ñëpp ibaadu lañ mooy jaamu yàlla yàlla moo ni wa ibaadu rahmaan alladina yamsuuna ala ardi huwnan wa ida xaatabahumul jaahiluun xaalu salaam rahman wa ibadu rahman mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ñoom nag euh, ñi comme que comme la leen yàlla sant ñu ne ci ñu ne ah kon ñi ay ibadu lañu ay ibadu rahman ay jaamu yàlla lañu ay jaamu yàlla mais du ko muuru rek euh, la ñuy woowee mooy ibaadu mooy ñun ñëpp ay ay ay ay ibaadu rahman lañ parce que ñu bu dee góor ñi d'habitude ñi ñuy wax ne ñooy ibaadu mooy ñiy jël euh, bu ñu solee pantalon day dagg day gàtt loolu itam est yoon la déedéet xam nga xam nga l'islam moom ci sikkim bi gudd sol yére yu cëkk masque. wut ab wut ko ab xàmmekaay euh, doo sol peut loo xamee ni comme ñeneen ñi moom la ñuy. waaw ku ci waaw xam nga ñoom ñëpp ku ci nekk ak sa feeling rek sa feeling bi la yàlla xam nga alaaj ah, ma mun mbay grand boubam ah tagal ah, euh, mbaxanaam bi mais man ah, ci nekk dama ci jàngat dara waaw parce que xam nga léeg-léeg dañ ne mën nga sol yëre yoo xam ne dafay buubu mm-hmm. mën na laal sobe si nga dem jullee ko wala dara mm-hmm. looloo tax ñoom ñu gàttal ko nga xam ne du gudd. Mm. waaw loolu daal xalaat naa ko ci paap. bari loo tey it bari na mag ñi nga xam ne sax daan nañ ko def lay tax daawuñu sol yére yu buubu. Mm. lañ ci daan euh, xalaat mooy. comme ni El Hadj Mamadou Mbaye Garmi wax. Mm. mooy sol ko mu buubu. mu buubu waale sobe nga ñëw taxaw ni allahu akbar waaw am na ci nag ñoo xam ne euh, dañuy seenuk seenuk jaamu yàlla dañ ci xaw a dëddwaale àdduna tuuti ah, da xaw a dëddwaale àdduna tuuti am na ñoo xam ne bàyyi moustache mu sëkk bàyyi karaw euh, farata la wala sunna parce que euh, loolu defe naa yàgg na ci réew mi mais ñun mënuñoo fexe ba comprendre ko waa xam nga mooy mooy lislaam moom alaaj Pape dafa ñëwee ci du ne yar sikkim loolu it lu lu baax la comme ni nit defaree kanamam ba mu ba neex a julli it ah, du farata farata ah, du farata du lu lu lu lu yàlla wax ci alquran du lu yàlla wax ci alquran sayyidina Muhammad wax ko nii nangeen ngeen def lii loolu bu ko bu ne woon na ko def yéen jullit ñi kon ñu jullit ñëpp ñu sëqal suñu karaw mhm. sëqal suñu sikkim def ko kon di ngeen gis sikkim yu buubu xam naa dinaa dox di téye sama bos <laughs> waaw waaye waaye bari woon na ci lislaam démb mu nekkoon mandargay feeñal diine lislaam rawatina arab yi nga xam ne dañu amoon karaw dañu amoon karaw amoon ay sikkim yu yaatu uh-huh. euh, lépp rek euh, ci xeetu euh, référence peut waaw ba noppi ci li ma seetlu école yi nag dafa bokkul hmm. yaa ngi wax école u imam Malik du benn na itam yeneen école imam Ghazali ah. Ah. Euh, imam Shafi euh, euh, safurla bu imam Shafi imam Hanbal ah. imam Hanifa am ah. Abu Hanifa ah. kenn ku ci nekk bokkul ak sa morom te ñun islam bu Sénégal lu ci ëpp bu imam Malik waaw Sénégal sunu magu réew mi nga xam ne ñun ci seen ginnaaw la ñu topp ñoom ci ki ñuy sukkandiku muy imam Malik ndax imam Malik moo daan toog ci rawdu rasulullah ci buntu rawdu sidina Muhammad daan jàngale mboolem branche xam-xam ya naan ki tëdd fii nee na ah. mm. léegi école yooyu ndax mën nañ ko méngalee ak euh, tarixa tiijaan ni mu amee euh, euh, ñaseen am itam ñeneen ñoo xamante ni ba tey ay Tidiane lañu mais ñu ngi ànd ci beneen beneen tari beneen sang xam nga ñee ñee ñi maanaam ñee seeni i seen i seen i seeni ngiir ngir ah, bokkul ak tarixa ah. bokk ñoom seen i ngir bokk waaw seen i ngir ngir yi bokkul ak tarixa parce que ngir yi la ñu indi uh-huh. euh, même tarixa yi la indi mooy yàlla ak Seydina Muhammad mais ngir yi la ñu indi mooy bokk ak bokkul ak tarixa da xool ngir yi fii uh-huh. murit am na laayen am na tijaan am na uh-huh. waaye ñoom ñëpp ñoo bokk ci ku ñu sukkandiku te mooy Imaam Maalik alors oustaz huit heures jot na laaj bi may mujjee laaj dama sama benn xarit boo xam ne sama jigéen la euh, Ibadou la RTS la nekk Oumy Nour la tudd est-ce que Ibadou am na droit làkk tubaab waaw dafa dégg tubaab lool man dama foogoon ni mu ngi bàkkaar am na droit làkk lépp <laughs> ah, waaw Zayd ibn Saabit Zayd ibn Saabit Zayd ibn Saabit xool alay tax Zayd ibn Saabit ni ko woon mënu nekk sama secrétaire mu ne ko ah. pourquoi mu ne ko parce que dégguloo langue yëpp d'accord il faut pour nga nekk sama secrétaire il faut nga dégg ay langue yu bari léegi ba doon joxe ay poñ ci plateau bi rek euh, Alfi dafa muuru euh, Besel dafa musóoru euh, Mado dafa musóoru kan ngay la ñu war a teg ay daan normalement maam Fati xanaa Fati de muuru la def Fati ñëwal dafa fàtte bis bi dafa fàtte bis bi ah, suba dina muuru suba dina muuru <laughs> waa kay yow yëpp xeetu yërmande la euh, jërë ngeen jëf mbokk yi huit heures a ngi doog a jot ñu jàll ci euh, xibaaru suba gi juróom-ñetti waxtu di 8 heures jot ci télévision Futur Média xibaaru suba gi Fatou Dieng lañ koy àndal dañu koy ibbeek euh, ay kàddu wala réaction waa PDS euh, jëm ci euh, marche ak doxu ñaxtu yi nga xam ni dëgmal nañu ko. ñu ne tey ci aljuma ji dinañ wàcc ci mbedd mi ñu am autorisation ak ñu ñàkk ko li ñu wax nee ñu li ñu bëgg a def ci dox ñaxtu kenn du leen ko tere moo xam nguur gi wala préfet la ñoom sax leneen lu ñu wax ne ñu àllarba bu jot daañu génn ci mbedd mi wax la leen métti démb Maudi Gueye moo fa teewal télévision Futur Média. trop nag c'est trop. avec ou sans autorisation. daañu ko def dinañu def meeting bi. et chaque semaine dinañ ko def. soxlawuñu autorisation Macky Sall dina xam nag Sénégal ñoom ñoo ko moom wala askan bee ko moom. artu dankafu ndajeem comité directeur bu parti démocratique sénégalais ci benn ponk lañ ko daal di tënk ab plan d'action. suba la mooy mooy bi samedi. mooy sitting boo xam si teewaayu Abdoulaye Wade Abdoulaye Abdoulaye Wade secrétaire général de notre parti mercredi ba li ñëw marche à la place du Obélisque loolu nag moom la ñuy def di koy def semaine bu nekk. suñu bu nekk ñu koy def ñu koy def ba xam nag Macky Sall nag fan la gëmal ñun fan la gëmal Sénégal. am ak ñàkk autorisation euh, ñi nga xam ne ñoo di waa parti démocratique sénégalais nee nañ kat li nga xam ne moo di salfaañi àq ak yelleefu doomi aadama yi moom dinañ ko dakkal ci biir réew mi. pour àq ak yelleef yi nga xam ni pouvoir bu Macky Sall mu ngi koy confisqué fii si Sénégal nit dootul réunion nit dootul marche nit dootul wax li mu xalaat. nit amatul benn droit et liberté kooku na Macky Sall fan la ko teg. ginnaaw loolu ñuy ñaawlu li nga xam ne nag la nguuru makki Sall taxawee maanaam taxaw ngir nësaxal seen parti bi nga xam ne ba muy juddoo ab partem kenn xamutoon ndax dina am ci réew même déet. moo Mody yi ñu des ba tey ci waa parti démocratique sénégalais ak jafe-jafe yu ñu fa gis li ñu nemmeeku mooy dafa am ñoo xam ne dañu ne ci wàll wi naan nañu def ndànk ñeneen ñi moom taxaw euh, maire ba futtu ñi nga xamante ni si nag ñoom ñooy yëngu euh, ci lu ni mel euh, tontu nañu ci mooy ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllum politique ñoom li ñu wax rek moom mooy waa parti démocratique sénégalais ñu bëri ca ñoom taxawaay bi ñu am dafa fekk ne rek amuñu pexe wala boog li mooy seen carte bu mujj bu ñu joué ci noonu dañuy teewlu benn taskatu xibaar Ousmane Sène euh, ci micro télévision Futur Média. dina gis nañ ne am na ñu pare jàmmarloo ak nguur gi waaye am na ci ñeneen ñoo xamante ne dañoo jàpp ne discours bi ñuy war a yëkkati mooy discours boo xamante discours jàmm la wala bokk waxtaan waxtaan boobu nag dem na tey ba mënatuñ caa déggoo loolu nag nekk loo xamante ne lu garaaw la parce que euh, boo seetloo tey ñi nga xamante ne dañoo pare jàmmarloo ak nguur gi ñoom lañ xamoon ci njabootu PDS dëgg ju fa yàggoon. ñàkkul nag am na ñoo xam dañoo ñëwoon ci PDS te jii itam bokk nag ñoom discours am na itam ñoo xam ne ñu ngi feete ci njaboot gële ci Macky Sall ñu ngi woon ci biir PDS tey ñu jàpp ne àddina mën nay dox ba ñu booloowaat ñoom njabootu libéral boobu. mu mel ni dafa am ñuy sóoraale loolu ci seeni discours parce que lu bari boo déggee ñuy wax li ñu woote mooy waxtaan mooy toog mooy weccoo xalaat mais am na ci ñoo xamante ne seen xel xanaa xalaatul ñu jóge ca PDS googu ci biir parti APR bu Macky Sall nekk wala njabootu libéral boobu sax ñu wax ba tey jii pare nañu lépp ngir nag lu mën a sauver PDS njiital Fonds monétaire international Christine Lagarde si na ni ki dem ci ndakaaru yëkkati ay kàddu li mu wax nag nee ñu ñoom noppi nañu ngir jàppale euh, plan Sénégal émergent waaye faw ñu xoolaat yenn ci subvention yi euh, di ay ndimbal yoo xam ne dañu ko teg loolee tax na rédaction bu Télé Futurs média dem seeti askanu Sénégal ndax xam nañu Fonds monétaire international lan lay jëriñ tontu li ak Aminata Mbaare Sow Thierno Laurent Mendy ñoom ñoo leen dénk ñoo leen taataan euh, seen micro. FMI waaye dinaa koy faral dégg nag. bëggoon naa daal nga leeral ma ci wàllu FMI moom lan la quoi ndax dama koy faral dégg waaye jot maa xam lan la moom. FMI nu ma ko xalaatee mooy benn banque internationale la boo xamante ne day jàppale eh, état yi nga xamante dañoo soxla financement pour seen projet de développement. FMI maanaam mooy kuréel kuréel la ci ci ci monde bi euh, bu ñu teg boo xamante ne ni luy ay ay koom la la seq di dimbale réew yi. nga xamante ne ñoo ngi ci en situation de difficulté maanaam ci Afrique euh, waaye aussi ci monde bi. Fonds monétaire international bon xam naa ne dañuy dimbali pays euh, pays sous-développé pays du tiers monde waaw yooyu daal la ñuy gën a dimbali daal. koy dégg à travers kii média français yeeg européens yi mais duma gis lu concret li nga xamante ne. mën naa ne lii FMI la wala en ah, moins que ma bañ ko xam mu ñëw ma bañ ko xam. FMI day jàppale koom-koomu Sénégal parce que képp koo xamante ne da nga am ay projet da nga soxla financement bu fekkente ne moom mi ngi jàppale état yi ñu am ay financement pour mën a financer seen projet mi ngi leen di jàppale. c'est vrai que des fois yi dafay xaw a diis et tout et il pose des conditions quand même assez euh, sévères. gannaaw doomu sénégalais yi ñu euh, jox kàddu ñi nga xam ne seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom bokk na ci euh, Babacar Diouf ñu wax ci njëriñu euh, kuréel gi di FMI la nga xam ne itam dina ko jàppale réew yi bootu ci bokk ak moom ay kuréel ak it seen taxawaay ci lu jëm ci wàllu gouvernance Aminata Mbaare Sow lañ ci desandil ak Thierno Laurent Mendy ñoo ko demoon sàcc Fonds monétaire international di kuréel gu juddu ci atum dañ ko tegoon nag ngir mu jàppale dëkk yi nga xam ni guerre mondiale bi da leen sonal ci seen wàllu koom-koom Sénégal mu ngi dugg ci kuréel googule ci atum boobu boobule ak léegi bëri na ay programme yu Fonds monétaire international dugal loxoom. bu ñëwee day jooyante day mel ni docteur boobu nga xam ne day ñëw rek ne lii moo la dal ne lii moo koy faj doog laa indi la koy faj. li ko jëlee plan d'ajustement structurel ak yeneen i programme FMI di dugal loxoom ci naka la économie Sénégal di doxee. li ñuy wax ISPE instrument de soutien à la politique économique moom la FMI sampoon diggante Sénégal ak moom 2007 2010 dàbbaliwaat ko diggante 2010 ak 2014 mu jeex waaye ñoom nag FMI jàpp na ne ci ñaar fukki at yi weesu Sénégal def na ay jéego yu baax ci li nga xam ne mooy. Euh, comme ci moom ni mu ko gisee. xaalis bi ñu leen di jox nag di ab lebal waaye ngir nga jot ci faw ñu imposer la yenn critères. FMI loo dégg mu joxe rek da koy leble. dañ lay lebal ñu ne la waaye dangay tënku ci lii waaye boo gisee ñu lay tënk ca loola dañoo buggul seen xaalis wala xaalisu keneen koo xam ne dugg na ci réew mi naax saay ca gannaaw xaalis ba muy àndi tamit dafa nekk euh, maanaam kuréel boo xam ne bu ne déet rek déet lay doon déet ñeneen ñi sax boo demee duñ mën a tee jox. fonds monetaire international réew yi am koom-koom ñoo ko ŋànk ñenn ñi di ñaawlu seen ñàkk euh, taxaw ci wàllu social yeneen dëkk yi ci Afrique di ñaawlu bépp décision boo xam ne ñu ngi koy jëlee euh, ci lu jëm ci wàllu FMI dëkk yi nga xam ni am nañu koom-koom bu taxaw rek ñoo ci am baat. Aminata Mbaare Sow dañuy jeexale ak lu jëm ci wàllu njàng mu kawe mi fii ci Afrique ñu ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy réewu Afrique yi mbir mi lu leen soxal la ba tax na sax ñu daal di euh, fas yéene amal ab euh, sommet boo xam ne dañu koy amal fii ci Afrique euh, fukki fan ak fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2015 bi ñu nekk fii ci Ndakaaru sax lay ame loole nag tax na fi mu ne nii ñu nekk ca waajtaay joriñ bi ñu dénk njàngale mu kawe mi dellu dellusiwaat ci solo si Ndiaye Adama xàccandoo dóorandoo ngir rek am njàngale mu koy mu mucc ayib loole mooy solos ndaje bi ñu nama amal fii ci ndakaaru li ko dalee ci fukki fan ak fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2015. ndaje mi nag dana am lu mot juróomi téeméeri ay kilifa ay kàngaam ay njiitu daara yu kawe yi ay étudiante ak ay étudiants. ay jàngalekat ay syndicaliste ay ñu yor entreprise ak ñoo xam ni tekki nañu bu baax ci àdduna si ak ci Afrique ñooy bokk xalaat nan la ñuy def ba daara yu kawe yi ñu mun a jox Afrique li tax koom-koomam jëm kanam. ministre bii di Mary Teuw Niane di dellu si ci jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la enseignement supérieur di jànkuwanteel fii ci Afrique. ndaje boobu nag. dafay ndaje boo xam ni dafa bëgg a gàttandu loo xam ni réewu Afrique yi muy Union africaine xalaat na ko muy Afrique nan lay nekkee ci 2063 dana ci xalaatit kàngam yi teew danañu xalaat jëm nan lañuy fexe bi alal bu bare dugg ci université yi nan lañuy fexe bi université yi li ñuy jàngale daara yu koy li ñuy jàngale bu méngoo ak bëgg-bëgg koom-koom bi nan la ñuy fexee it bi Afrique mun a tekki ci réewu adduna si. lu waral ñu tànn Ndakaaru ngir amale fi ndaje mi nag bokk na ci coppite yu am solo ñu amal ci wàllu woowu fii ci Sénégal. Codé Ndiaye sant nañu la yéen tamit naka noonu ci teewlu bi ak kóolute bi Pape xibaar yaa ngi noonu. waa kay ngërëm ñeel na la maam Faty Dieng ñu ngi lay xaar bu 10h jotee nga dellu si bu ko defee nga yaatal yeneen i xibaar euh, ci français lay doon ci télévision Futur Média 8h11 mooy doog jot. mbokk yi ñu àndandoo ak yéen ba léegi rek di leen ñaanal ba bëccëg bu neex ci euh, télé bile euh, bu ñu euh, jàllee léegi dañuy dem ci jóg job bëri ngeen ci di ñu yónnee ay CV pour wut liggéey parce que xam nañu ne léegi bàkk bi ñëpp miin nañu ko ndawi Sénégal ku ci ne bëgg ngaa jóg job loolu nag dañu koy jàppale sunu xarit yi tey nag ñu jot ay CV yu bari tànn ci ñaar bu njëkk bi CV wu ku tudd Caane Jaw la Caane Jaw dafay wut liggéey ñu ngi ñaan joxekatu liggéey bu

ak bii enregistrement de la remontée des tickets au niveau des documents comptables enregistrement comptable du PMU et des tickets de grattage bingo bi ak bi au niveau du logiciel Sari 1000 alors si vous avez besoin euh, de Thiané Diaw vous pouvez la contacter euh, par mail à l'adresse qui s'affiche euh, ci écran bi muy tchatcha 1989 collé arobase gmail.com CV bi ci topp CV wu jaari euh, euh, Marietou Gaye Marietou Gaye moom itam dafay wut liggéey ñu ngi ñaan euh, joxe katub liggéey yi li ñuy bëgg a wax ci moom bu leen soxalee mën ngeen ko contacter directement def entretien pour pas ngeen jox ko liggéey alors Marietou Gaye 2013 2014 am na licence en transport logistique ca école bu tudd ISEC institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion à Dakar expérience professionnelle du 1er octobre au 30 novembre 2014 Euh, def na stage la compagnie sucrière sénégalaise à la direction de la suppli euh, supplichène à l'économate du magasin général tâche tirer des bons réceptionner des commandes faire des listes de prélèvements des bons de euh, par M3 Make Move Mountain du au 29 août 2014 stage à la compagnie du à la compagnie sucrière sénégalaise à la direction de la suppli chaîne wala Sapli Chaîne euh, magasinière Cardex usine tâche réception édition et tirage des bons et saisie des rapports journaliers alors bu ngeen ko soxlawee mën ngeen ko contacter euh, par mail adresse baa ngi noonu euh, muy gaymarie88collé arobase yahoo point ñu ngi leen di wax rek euh, bonne chance mën ngeen ñu yónnee seen ay CV ci adresse mail bu yow yeewu leen euh, bu ko defee ñu euh, tànn ay CV bi si lundi ak mardi ak jeudi kia daf ci teg ay conseils yoo xamee ni mën na soxal yéen ñi nga xamee ni yéenay wut liggéey donc ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di wax rek bonne chance soxla bu teew nag dégg naa ñu naan ay nelaw fayu ko El Hadj Woon Mbaye Garmi lool loo ci loo ci loo ci yokk soxla bu teew ay nelaw faju ko. boo bëggee lu ne këtt daal lu rek moo koy fay. loolu lu muy tekki ba tey Mbaye. xam nga soxla ne jekki-jekki bett la. waaw. ngay xiir xiir yi fu ne nga aw fa. Uh-huh. kooku nag boo liggéeyul doo ko mën a am. déedéet. liggéey rek a wóor. Uh-huh. te liggéey ci ngay gàddee sa dignité Pape. Uh-huh. liggéey dafa am solo. tey bi noo bi noo waa xam nga yaa ngi ko xam ne bi nga xëy yaa ngi gis sénégalais yi. voilà ñëpp xëy. moo tax maa ngi ndokkeel bu baax. jànq yi. wallaay ñoo am jom. ñoo bari jom. wallaay. ni ñoo nangoo teel a yeewu. te salaire bi bariwul de. waaye ah. dañuy teel a jóg. wallaahi. boo boo yéexee ñoo lay fëgg. wallaahi. dama ne fajar gi sox doo ko julli ñoo lay ñoo sa so sori ñoo koy laal. wallaahi wax na ah daal gàcce ngalaamaa. man nag ñi gën a daw sama yaram. mooy mag ñi yenu seeni i paan. seen i pañe seen i ak seen pañe. Mm. di ko yóbbu marché laataa ñuy mm-hmm. dem marché jaaykatu jën yi am na ci ñoo xam ni. Mm. dañuy dem maare. dañuy dem géej ca tefes ga dem jëndi seen ay jën fajar dang-dangi ci car rapide yi hmm. dem jaayi ci seeni i ñoom laa gën a ñoom ñoo gën a daw sama yaram day moo tax ñooñu euh, loo fi gis te mu gën rek ñoo ko jur wallaay hmm. ñoo jur président yi fajar ñoo jur ñu baax ñi de wallaay wallaay wallaay ñoo jur borom pañe yooyu nga xam ne nii tubaarkal la ñooy ñooy jóg fajar ah. eh, dem ci tefes ak yooyu wallaay fi jur ñu gën moo tax bi la jigéen ñi sëy rek a leen war wallaay wallaay wallaay doon jàmbaar rek a war Pape wallaay wallaay koo ko defu rek yaa ngi ci erreur te koo ca laajkat lam lay wax mooy sama jëkkër mënul ah li ñuy wax mbay wallaay mais mais mais Pape Cheikh balaa balaa nga ciy xam dara. Euh. nga dem ci àll ba. dëkku kaw ya boo demee ca dëkk kaw ya euh. des fois da ngay gis ne ndox dafay jafe. dañuy yeewu ay 4 heures du matin dem euh. rooti ndox pour jëkkër ji sangu mun a jàpp julli xam nga taxañ yi ñëw soog a togg ndékki. am na ñoo bien sûr ñoom ñoo ci gën a gën a sonn mooy que ne vraiment yeewu fajar rek. Mm. lépp mu ngi ci biir. li tax li tax ñu war fonk jigéen ndeke bëri na. xaw ma lu xew de. Uh-huh. xaw ma lu xew ci heures du matin gi may jóg ah. su ma jógee rek soxna si dama ne ndox mi moo koy tàngali ah jàmbaar la barke Moustapha ma ci Medina moo koy tàngal mu dugg ci salle de bain bi ah. mu dugg jóg eh. <laughs> te boo génnee fekk ndekki ci kaw laal <laughs> wallaay la ca ah, gën a bàkkoo loolu la ca la ca la ca la ca maa ko bàkkoo la ca gën a ndaw la ca la ca gën a ndaw <laughs> la ca la ca gën a ndaw la ca gën a ndaw te gën a metti te góor mënu ko muy wasin nag boo tak nàmpal mhm. li tax ñu war a fonk jigéen de ko bëri na ndeysaan. Mhm. bëri na wallaay yàlla fonk ko. moo tax uh-huh. uh-huh. si xaaral de maa ngi ñëw ci yow. amul benn uh-huh. tur bu góor ci saaru alxuraan amul benn saar boog bëgg wax. ah amul bu yàlla tudd góor. waaye yàlla yëpp jigéen bu mu tuddee góor. Ah, amul bu mu tuddee góor. waaw ah, d' accord d' accord jigéen rek la tuddee. Eh, mhm. kon buuba amuñu saar de déedéet. Ah, <laughs> ndax fonk jigéen. wallaay kon ñu ngi sargal jigéen yëpp rawatina jigéenu Sénégal euh, jàmbaar yooyu nga xam ne dañuy xëy fajar di daan seen doole wax naa ko léegi ba ca gën a ndaw te gën a metti lool aussi nag boot ak nàmpal lu góor mënul kon ñu ngi leen di euh, njukkal El Hadj Mane Mbaye Gar mi sargal na euh, Adja soxnaam moom itam ñu ngi ko ndokkeel bu baax oustaz Pape itam gërëm na ay jigéenam gërëm soxnaam euh, ñaata nga ci yor sax oustaz yor naa ñaar waaw ñaar ba ñett ba ñeent ah. <laughs> loolu kay question bu rëy ah nopp daloo dina dem bay mbay léegi nag léegi nag bu ngeen dégloo ñu dem dëkk buñ naan Sigicoor foofee itam euh, bëri na ay jigéenu jàmbaar waaye Futurs Médias nga fa TFM euh, am na fa ay bureau suñu correspondant permanent ba fa ne euh, la ñu fay fekki muy Boubacar Diassi Boubacar. naam dégg nga li ñu wax ci jigéen ñi de. waaw dégg naa ko de jigéen soor de am na ki ki ñuy wax Aline Sitoé Diatta. waaw ah ñëpp xam nañu ko Sénégal de. wallaay jàmbaar la. maa la ko wax. référence la ci de am na bis boo xam ne Bessél nettali ma histoire am. ndeysaan la ma la ma ca dégg daf maa yéem. balaa ngaa xam ne itam jigéen ñee doon jàmbaar doon Aline Sitoé Diatta ak Yacine Boubou nga ñëw Casamance ndax foofee jigéen ñi dañuy xëy fajar dugg ci tool yi bay xëy fajar dem sigi coor liggéey yooyu yëpp euh, dañu ko gën a seetlu ci dëkk yu mel ni Ziguinchor Boubacar wax nga dëgg wax nga kon ñoom ñu ngi leen di sargal bu baax bu weesoo loolu lu ñu mën a jàpp ci ay xibaar foofee ca Ziguinchor waaw xibaar yi nag bëri na fii waaye nañ ko tënk ci ñetti poñ. Mhm. poñ bu njëkk muy euh, wàllu napp bi ak lépp luy koom bu jëm ci euh, euh, géej gi. waaw ñaareel poñ bi mooy wàllu yoon maanaam cour yi mhm. mooy cas yu gën a garaaw yi nga xamante ne moom la ñuy. Euh, jugé ci cour d'assises yi. Mhm. ak wàllu euh, jàng mu kawe li nga xamante ne moom mooy enseignement supérieur. Mhm. kon poñ bu njëkk bi buñ ci ñëwee mooy euh, pêche et économie maritime maanaam lépp lu jëm ci napp ak koom-koom bi nga xamante ne moom lañ mun jëlee ci géej gi. Mhm. ñu jàpp ni dañuy dañ leen di yóbbu ba Kafountine Kafountine bi nga xamante ne moom mooy quai de pêche bu gën a mag ci Casamance. boo jëlee ñetti région Casamance waaw Kafountine waaw. Hmm. yaakaar naa di nga ko dégg ci sa télé. Ah, xam naa fa dem naa fa. ah voilà Kafountine dëkk bu neex la ndax wax dëgg yàlla. def naa fa ñaari fan. ah très bien. Ah, ah. donc euh, parce que Kafountine d'ailleurs chance chance bi waa Kafountine am mooy atmosphère Kafountine climat bi ak bu Dakar benn la. exactement waaw. te ku ah. xam Kafountine nga xam Dakar. donc moom mooy quai de pêche bu gën a mag ci Casamance. te muy am trente cinq mille tonnes de de mise à terre mise à terre mooy li nga xamante ne li ñuy jàpp ci euh, ci napp gi di ko indi ci euh, ci kekk gi. donc loolu mooy mise à terre Euh, bu ñu jàppee at atum 2013 am na 35 000 tonnes euh, de mise à terre Kafountine kese kese kese. Hmm. boo jëlee daaw jël na waa dem na ba 33 000 tonnes te loolu di xaalis bi ñu ko xaymaa ci xaalis muy 7 milliards de francs CFA. bëri na moo koy moo fa moom la ñu koy liggéey mais léegi problème bi nag mooy xaalis boobu du des du des Sénégal. Hmm. xaalis bi day génn Sénégal. fu mu euh, waaw parce que boo jëlee Kafountine ku dem Kafountine di gis ni Afrique de l'Ouest bu tuuti la parce que lépp luy nationalité libérienne Sierra Leonaise. Euh, en tout cas daal ku waaye malienne ñëpp. ba ci Ivoirien ñu ngi ñu ngi Kafountine. ok ñooñu nag ñooy ñoo am le moyens. Mm. dugg ci géej gi napp mm. génne euh, jën bi. Mm. trans exporté ko yóbbu ko seen i seen i réew. Ah. donc problème boobu nag la nemmeeku. fii mm-hmm. fii ci kàddu fii ci région de Ziguinchor rawatina un problème ça. waaw problème la ba tax na Omar Gueye mi ministre de la pêche et de l' économie maritime. Mhm. dafa déplacé wu spécialement ñëw mais dem Kafountine fa la yegg euh, fa euh, de deux jours. Mhm. mais bu mu fa yeggee bu ñu ko waxee loolu daf ko métti bi finalement mu ne mhm. non il faut que. Euh, ci ministère am. ñu mhm. euh, euh, jël décision. Mhm. xaalis boobu mu def Sénégal. Mhm. parce que dafa bari trop sept milliards de francs CFA di génn par an Kafountine kese. c'est c'est trop mu ne mu léegi daal dina fexe ba Casamance yi sénégalais yu bëgg yu nekk ci napp gi. rawatina jigéen ñi encore parce que yaa ngi wax waxta wax wàllu jigéen ñi. jigéen ñi ah. dafa insister ci jigéen ñi mu ne parce que dafa dafa seetlu ni. jigéen boo ko lebalee xaalis dafay fay. waaw loolu moom moo ko wax. waaw ah, ñu bëri ñoom ñoo ñàkk foowee seen bopp de ñoom. nee na jigéen nee na jigéen daal boo ko loo ko lebal ci xaalis mu fay la ko. wallaay <laughs> nee na donc dina dina mettre accent dina gën a mettre accent ci jigéen ñi. Uh-huh. ñu mun lebal jigéen ñi ay xaalis ñu am ay crédit mun liggéey xaalis boobu vraiment ngir xaalis bi des Casamance des mm-hmm. Sénégal. c'est loolu nag mun la mun jàpp ci euh, wàllu pêche. Uh-huh. Euh, ak économie mais am na beneen point bi nga xamante ne aussi ministre bi Euh, pêcheur maanaam euh, ñeent fukki nappkat ak juróom ñooy ñooy def ci géej bi ak bu ne ci Sénégal. Hmm, loolu nag bëri na aussi vraiment euh, waaw bëri na de bëri na de. boo des ci gi waaw waaw loolu day. métti na waaw ci géej gi ñoo ci ñoo ñooy des ci géej gi. voilà ay géej gi ay géej gi bàjjo. waaw ndeysaan léegi mais nee na aussi bu ñu defee diagnostic bi dañ gis ni suñu yi du ñu sol ay gilet de sauvetage. Hmm. dañuy bañ bon xam naa aada la. Hmm. mais nee daal ñu fexe ba intégré loolu. ñuy sol ay gilets de sauvetage te nee na bi incha allah euh, rawatina ministère am dina fexe ba am vingt mille gilets de sauvetage yu mu yu mu jox euh, nappkat yi euh, ci année bii année deux mille quinze bii. c'est bien ça loolu tam baax na. waaw loolu annonce bu rafet la wax dëgg yàlla. kon bu ñu bu ñu jógee ci wàllu napp wi ñu dem ci assises yu maanaam cour d'assises yi nga xamante moom mooy am Ziguinchor depuis le vingt six ñu ngi kawam. Mhm. le six février bu soobee yàlla lay nar a lu mat euh, fanweeri nit ak benn. ok xaw naa bëri mais bëriwul tamit parce que cour d'assises Ziguinchor. Mhm. moom mooy jël en charge Ziguinchor Sédhiou ak Kolda région de Ziguinchor région de Sédhiou ak région de Kolda. donc am waaw ci euh, ci prévenu yi sax am ñi nga xamante ne sax euh, ñu ngi jógee ba Kolda ñu may fii fii Ziguinchor la leen di jugé. donc liñ ci gën a mun jàpp mooy affaire affaire Omar Lamine Badji boo fàttalee ko Omar Lamine Badji moo nekkoon. Euh, président conseil régional bu Ziguinchor. te ñu faat ko 2006 30 décembre 2006. waaw ci coow la voilà juste veille tabaski ah comme si boobu mooy tabaski tey tey ñu faat ko. kon euh, ñu ñu jàpp si mbir moomu ma lañ doon jugé. Euh, le 26 bi passé maanaam premier jour. cour d'assises bi ñu ngi daan daan bu gën a metti mooy vingt ans de travaux forcés maanaam nga liggéeyal mm-hmm. waaw vingt ans te kenn du la fay dara du mooy quinze millions de francs CFA quinze waaw moo si gën a diis waaw moo si gën waaw donc tey tey tey jour jour jour bi ba may wax ak yow tey am na ñaari affaire mhm. affaire bu njëkk bi si affaire tra trafic euh, de chanvre indien la. Mhm. mais deuxième bi mooy rey nit am na ki nga xamante ne ñun ne dañ ko tuumaal ne dafa rey doomu aadama. kon war nañ jugé tey. donc boo see boo seetloo sax cour d'assises bi li si li si gën a ëpp euh, ay affaire mhm. ay affaire de rey nit la affaire de trafic international de chanvre indien. te boobu itam dafa dafa. Euh, boo gisee boo jëlee position Ziguinchor. Carrefour euh, la parce que voilà Carrefour la. Mhm. boo euh, ku ku trafiqué drogue génne jëlee ko Guinée Bissau indi ko Ziguinchor rek dañ koy tuddee trafic international. d' ku ko jëlee Ziguinchor yóbbu ko Gambie dañ koy tuddee trafic international. ok donc moo tax mu xaw a bëri ci mbir mi daal. voilà donc ka bu mujj bi mooy Pape Cheikh mooy enseignement boobu dañ ciy xaw a dañ koy tënk gën a gën tënkaat. Euh, euh, ministre Mary Teuw Niane ñëw na Ziguinchor def fi ñaari fan. Uh-huh. Euh, def na aussi visite ay ay sites yu bëri. Ah. mais lu ñu si mën a jàpp comme site bu si ëpp solo mooy ISEP bu Bignona te ak Macky Sall annoncé ko 31 décembre bii passé. ci discours à à la nation am. donc ISEP bi dem na fa. Hmm. waa waa au fond du Bignona mais dëkk bu ñu wax Kolomba la. Kolombal te waaw te am te nekk 7 kilomètres du Bignona. Bessel xam na ko Kolomba la. waaw Kolomba Kolomba. waaw xam naa bettal ko ndax man. xam wallaay xam na ko xam na Kolombal xam na Kafountine xam na Kañamo <laughs> mu ngi toog professeur Massamba Gueye la wuutu tey. maa ngi koy ziar ah. donc donc euh, waa Colomba. Euh, ah. ñoo jël décision jox seen i terre état bi. Ah. Euh, jox ko jox état bi cinquante cinquante hectares de terre. très bien donc boo jëlee cinquante hectares yooyu ñoo ëpp sax université bi Ziguinchor parce que université Ziguinchor. Hmm. mu ngi ci quarante hectares. ok mais waa Colomba dañu jël cinquante hectares jox ko état bi ne ko vraiment may nañu la ko nga tabax ISEP bu Zig bu Bignona. bien donc waaw te boobu financement bi nag am na ba pare. Hmm. yàlla bu dogalee ñu fi ñu tabax ko daal ñu ne cinq de francs CFA lay <laughs> kañ ngay couper waaw non pare na. kon ñu ngi lay gërëm bu baax merci. <laughs> merci. jërëjëf Dias yi moo ñu teewal ca Ziguinchor li mu yaatal foor na dinañu ko gën a euh, déglu ci rajo bi tey toute la journée RFM ak it euh, suñu site bi di gfm point sn ñu ngi koy gërëm bu baax ak xarit ci nga xam ni euh, ñu ngi àndandoo ak ñun ca Ziguinchor 8 vingt 26 mooy doog a jot xanaa rek ñu jàll ci carnet de voyage ak Bessel tukki bi pare gunu ko ginnaaw bi ñu jógee Ziguinchor ci ay xibaar dañuy dem nag waa Sinthiou bu Thiora noonu nga ñu waxoon lu tudd <laughs> euh, tey nag euh, dañuy dem fi nga xam ne nii euh, moo di Bakel. bakk leen ma kon nag dañuy dem ci dëkk boobu temps wu colon dafa am loo xam ne dañ ko fa tabaxoon nag mu nekk loo xam ne moom moo jiitu ca bakk kon loolu lañuy dem rek découvrir ko ñan ak ñan ñoom ñoo ko construire ak ban njëriñ boo xam ne amoon na ko jamono jooju ak jamono ji tey ñu jël ko daal di koy def nag préfecture bu Bakel kon nag nañu dem seetaan loolu. Folli mooy Fort Faidherbe soo gisee ñu jox ko turu Faidherbe eh, te Faidherbe gouverneur du Sénégal la woon musoon na fi dëkk loolu moo tax ñu jox ko ñu jox place bi turam e fu ñu jaar mooy eh, bunt bi Eh, bunt bi soo ko gisee nu mu mel eh, dañ def parce que ci ci kaw colline la nekk eh, tubaab dafa am xel te temps yooyu puisque ay xeex moo amoon dañuy placé wu fu gën a kawe loolu moo tax soo gisee nu ñu doon yéeg ni montagne la am na ci suuf gis nga ay canon aussi canon yooyu ay fétil la dans les temps pour jéem a euh, protéger fort bi nii et bi euh, soo gisee temps bu ñu yéegee suñu xoolee suñu euh, suñu droite am na benn pavillon bu ñu gis pavillon René Caillé la tudd René Caillé benn explorateur français la def jógee France région de Bordeaux mille neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf la judo un an avant mille ñëw fii à lage de dix-sept ans da doon romb rek pour dem Tombouctou au Mali dekkul euh, kii pavillon bi mais dañ ko jox turam rek pour euh, magnifier son passage ici à Bakel pavillon bi nag 1800 Fort Faidherbe bi 1818 la commencé lañ ko commencé tabax 1850 euh, la 53 la Faidherbe bi ñëw mais 54 la la fort bi pare mais bu ñu xoolee euh, tabax bi bu ñu xoolee ni ko construire yi euh, hmm. xeer yi hmm. en fait mun nañu xam exactement tubaab yi ñoom ñoo ko tabaxoon wala waa Bakel si seen jëmmu bopp hmm. ak architecture bi nan la demee waa xam nga dans les temps temps wu colon du euh, tubaab tubaab bi xam nga du jël même su fekkee maçon qualifié la moom du jël truelle bi du jël kii bi du du ñu wax waa Bakel la ah c'est-à-dire ñoom dañ doon jël ay ouvrier tout le long du fleuve ah ci biir Sénégal yëpp lañ doon jël ay ay ay ay maçon qualifié indi leen main d'œuvre bi c'est sur place que dañ ko doon jël di di tabax nag ñoom ñoo ñoo nekkoon euh, concepteurs yi ñoom ñooy architectes yi mais pour ce qui concerne euh, kii bi tabax bi waaw euh, sénégalais yi africains yi ñoo nit yu ñuul yi ñoo ko ñoo ko def gis nga am na ay bën-bën bën yooyu du pour rafetal kër gi bën-bën yi xam nga dans les temps da dafa amoon ay xeex Mamadou Lamine euh, euh, Alkali Dramé am na ñu koy wax Mamadou Lamine Demba Dibassi Dramé euh, marabu Soninké la Gunjurum ci Mali la juddoo 1840 fii la jànge ci alxuraan la doon jàng fii ci benn université ñu koy wax Moissy fii la jàng après def pèlerinage am à la Mecque en 1886 la xeex contre Faidherbe euh, contre euh, les Français fii euh, donc bën bën yooyu soo nekkee ci biir di nga gis ñu nekk ci ci ci biti donc ñoom fi lañ nekkoon ci biir di leen viser di di leen rey alors que ñale pour pour ñu jot leen vrai problème la donc lii la ñu mën a wax ci for Faidherbe bi voilà defe naa colon yi ñoom ñoo fa jiitu. Euh, ñoom ñoo jiitu foofu ca pont wu Faidherbe ba maanaam euh, bërëb bi comme te Faidherbe xam nga ñëpp xam nañ ko. Mhm. moo tax nag ñu jël bërëb boobu daal di ko koy euh, tuddee waaye bërëb boobu nag dafa nekkoon bërëb boo xam ne nii xam nga boo demee Bakel frontière la diggante Mauritanie ak fi nga xamante ne moom mooy Mali. Ah. kon nag tubaab yi dañu ñëw ci fleuve ba mhm. daal di construire li nga xamante ne moom mooy bâtiment boobu mais bâtiment bi dafa benn construction boo xam ne noonu lañ ko construire mooy que ne maanaam genre euh, xeex la woon bi ñuy xeex tubaab bi bi ñu doon xeex ak nit ñi nekk ci euh, biti nit ñu ñuul ñi dañu tabax ay trou yoo xam ne yow mi nekk ci biti doo ko doo leen gis mhm. mais ñoom ñi nekk ci biir bâtiment bi ñoom ñoo lay gis ñu jël seeni arme doon leen doon fetel rey leen mhm. euh, tey nag bërëb boobu moom moo ñëw nag daal di nekk tamit li nga xamante ne moom mooy préfecture bu Bakel mhm. euh, parce que amuñu benn bërëb boo xam ne mun nañ ko fa def boo gisee niñ ko consulter boo yéeg maanaam ci kaw montagne la nekk ci kaw waaw ba nga xamante ne nit mënul jékki-jékki rek am accès mun a dugg foofu ci biir. Mm. parce que d' abord da ngay sonn il faut que nga yéeg yéeg ba nga aussi dañ ko baare euh, carrément boo boo demee ci biir bërëb boobu bâtiment bi nekk na bâtiment boo xam ne bu yàgg yàgg la. ni bâtiment wu démb yi la ñu maintenir. ba voilà def ko ay bureau def fa préfecture bu Bakel. mais si biir loolu tubaab yi ñoom ñoo fa dëkkoon ñoom ñoo doon xeex nag euh, ñi nga xamante ne dañ doon jógee euh, Tombouctou parce que ñooñu lañ doon xeexal ak ñi nga xamante ne dañu doon jóge Mauritanie ñoom nag dañu ñëwoon installé wu fi nga xamante ne moom mooy Bakel loolu moo tax tey ñu indi leen li nga xamante ne rek euh, moom mooy euh, bërëb boobu. waaye heureusement ba ñu ngi koy ba tey normalement dañu ko waroon def ay musée. nit ko visiter xool ay la yu bëri histoire. bu bëri bëri histoire parce que ñu bëri tamit euh, jaar nañu ci bërëb boobu hmm. ku ci mel ni tamit Lamine Dramé hmm, koo xam ne kilifa woon voilà Mamadou Lamine Dramé koo xam ne kilifa woon hmm. dafa demoon demoon màkk mais bi mu ñëwee da doon xeex ak nasaraan yi ah. euh, tubaab yi pour ñu gën a installer li nga xamante ne moom mooy diine l'islam euh, foofu ca euh, Bakel mais tey boo demee tamit Bakel di nga gis ca Bakel tubaab yi dañ fa am seeni armeelu bopp ñoo xam ne ay français kese lañ fa lañ fa suul ah. maanaam période guerre bi nag xam nga dañuy naan tout le temps que africains yi dañu am seeni mystique gu bopp donc dégg naa dafa amoon benn jaare bu leen daloon ah. dañ leen ko defoon si lekk ñu lekk ko ñoom ñëpp eh, moo tax nag <laughs> ñu daal di gagné loolu di xeex bi ah. donc di wax ne bâtiment boobu vraiment bâtiment boo xam ne bu jara jara visité la ah. parce que historique kese moom moo ci nekk Pape Cheikh jërëjëf ak a xam lu ñu xamul moom desel histoire u ko ku ko xamuloon xam ko euh, loolu nag euh, defe naa euh, am na solo ci ñi nga xam ne ni ñoo xamul Bakel doomu Bakel yi tax itam ñoom tamit ñu xam ko mhm. ay tukulër dëkk Bakel c'est ça Bakel non Bakel du tukulër mais Bakel ay sooninke mooy saraxulle ñan tukulóor ñoo fa ëpp. Ah. parce que tey boo fa demee ñoom ñoo ëpp Bakel. mais ah, je pense la ñuy gën a làkk foofu. déedéet soninke bi moom moo ko moom moo fa dominé parce que presque ñëpp ay euh, saraxule lañu raar ngay retrouver ay pël wala ak ay bambara. Ah. léegi nag boo demee ci fleuve bi am na ay bambara. parce que tamit ñooñu dañ fay napp dañ fay jaar di dem Mauritanie di fa. voilà di mm. jaar tamit di dem euh, Bamako Tombouctou yooyu yëpp. Hmm, d' accord d' accord hmm. kon mu ngoog loolu la ñu mënoon jàpp ci euh, Bakel mel na na ni Louga rek man bay gar ni euh, euh, cimetière bi ñu tuddee Tolpero waaw xam nga Pape bâtiment boobu lu mu yàgg-yàgg ci musée lay mujjee hmm. manque de moyen rek xam naa moom moo tax ñoom ñu installé fa ok moo tax dëgg-dëgg am na loo xam ne li temps colonial dañ ko fay def war nañ ko sàmm ndax da nga gi mag ñi dañu fa nekk di di bëri ak ñoom ba loolu xew xam nga stratégie boobu ñu def loolu ñu leen def ba ñoom ñëpp dëgg-dëgg ñu am jaare waaw ba mën a ba mën leen bañ mën leen ber eh. loolu loolu xam-xam la wallaay xam-xam te niñ ko def ñooñu eh. dañoo yoonu seen i arme mm, mm. loolu moo lay wane daal dëgg dëgg suñu mag ñi kenn mënu leen waaye xam naa ñun suñu histoire bu ñu ko bindoon euh, ñu raw tubaab yi mm-hmm. euh, ndax ñun suñu histoire mm-hmm. li ñuy faral di wax euh, dañ ko am ci ci wàllu wax mm. lu ci ëpp bindu ñu ko genn wàll gi géwee la ko wax mm-hmm. di jox doom di ko jox sët ba ku ni yow ne fi ah. waaye xam naa bu ñu ko doon bindit mais man de Pape man de maa ngi préparé une livre boo xam ne bile waaw sans personnalité lañu kon di nga mel ni Assane Madoxaye non kooku lañ ci bi nag mënu ma ko génne xam nga Sénégal dañu mën a piraat. waaw waaw mais c'est toujours intéressant bien li ñuy wax comme tradition bi dafa xaw a oral euh, yéen ñi am xam-xam di ko wax di ko xamle bind ko itam xale yi jëfandikoo ci comme lii a xew hmm. euh, defe naa loolu itam am na solo daal l'avenir daal nous jugera dëgg la Pape Cheikh am lu may yokk rek xam nga tamit tubaab yi c'est vrai que ñoom ñooy architecture yi ñoom ñooy kii euh. mais tey bu ñu xoolee nit ñu ñuul ñi ñoo tabax loolu parce que dañu doon jël ban ban la woon ak ay xeer hmm. lañ ko tabaxee mu nekk nag bërëb boo xam ne dafa dëgër cool mais tamit war nañ ko defar benn musée comme ni nga ko waxee mm-hmm. nit ñi di fa dem di fa visiter parce que mm-hmm. am na article yu bare bare mm-hmm. yoo xam ne ñu ngi ci biir euh, bërëb boobu Pape Cheikh Diagne voilà mu ngoog donc tey ñu ngi woon euh, ñu ngi woon Bakel ñu ngi lay gërëm bu baax Bessel ci euh, carnet de voyage ñu ngi ñëw léegi bu ca kanamee àndandoo ak El Hadji Mbaye Garmi ci fàttaliku tey nag nañu waxtaane ki nga ni mooy Adja Marème Diop Mado mu ngi yu yi nga xam ni baaxu maam la ñoom képp goowee ah gis naa fi ay xob ak ay bant yu fi teg <laughs> alors digi jégi it eh, ndeke baax na eh, dinañ ko waxtaane fi lekk ay minutes eh, alfi itam mu ngi ñuy pareel laax dinañ waxtaan itam ci bis bi nga xamee ne ñu ngi ko jagleel jigéen yi muuru dinañ recevoir Oumy Ndour ak kuréel gi nga xamee ni ñoom ñooy amal événement bi ci Sénégal ce sera juste après cette page de pub